Y'all want me to do a song for you kids? Alright, alright, let's go. I listen to and Town radio show. School is over. Go home, do your work. salaamaaleykum Gambia salaamaaleykum beneen yoon nuyu leen ku nekk ci sa tur ak seen di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ne nag ñu ngi fi nga xam ne nag mooy Bamba Auto Works ah, kii nag nekk ab ndaanaan boo xam ne ah, Gambia rawatina nag waa Banjul xam nañ ko bu baax a baax ah, soo ñëwee ci wàllum gaal soo ñëwee ci wàllum li nga xam ne mooy moto soo ñëwee ci li nga xam ne nag mooy fiir yi soo ñëwee ci li nga xam ne nag mooy xam-xamam ci politique bari na lool Bamba Auto nekk koo xam ne Gambia war nañ koo célébrer waaye rek comme nu mu ko waxee ah, dañuy wax ne nit yu bëree bëri dañ de fàtte te ñun nag Gambian Talents bu nguñ ta fàtte moo taxit rek ñu ñëw tey célébrer ko bu nga xam rek fan la jaar ak lan ak lan la def biir Gambia jërë ngeen jëf Assalamualaikum Gambia Assalamualaikum. nuyu naa benin yon. Kepo képp koo xam ne rek Gambian Talents Promotion Sen mbokk kesen harit fatu saman nui nalen. Dilen wah man mai borom Janah De bari pa. Mus de muna wah wax Fulen ko dega tirek. Se Gambian Talents ken Ham nasa mo gal moi borom Bili gire kom comme ni ñu koy dama inil Ningen Hamne ne di ngeen a inil Ninga Hamne ay living legends leen dinaa leen indil nit ñi nga xam ne den liggéey si Gambia ñu bari nag fàtte leen ñeneen ñi nag xit na fàttewuñ leen waaye rek daf leen jox gannaaw tey nag ma indi leen ki nga xam ne moom la ñu ooyee Bamba Auto Works kooku nekk na ab ndaanaan boo xam ne waaw lépp loo xam ne wàllu moto la rek Bamba Auto Works la Gambien si óolu woon Bamba Auto Works la Gambien si xamoon waa Banjul Banjuli waa Gambia xam ngeen Bamba Auto Works tey ma indi leen ko daf ñu naral réeralal yu bëree bëree bëri Bamba nuyu naa la na nga def nag Fatou jaama rek salaamaaleykum naka waa Serekunda waa ñu faay ñëpp waaw alhamdulilah nuyu naa la dalal jàmm dal naa jàmm jërëjëf eh, tey nag ñu ñëw fekk la fi nga xam ne eh, mooy kër ju mag ji ñu koy oye daara ji ñu fekk fi xale yi fekk fi mag ñi fekk fi borom sikkin yi fekk fi ñu ndaw a ndaw yi ñëpp dañuy jàng saroon ñu bàyyi la rek nga nuyu askan bi ñu nga wax ñu kan mooy Bamba asalaamaaleykum àddina si maa ngi tudd Cheikh Omar Ndiaye ñu xamee ma Bamba Auto Works eh, maa ngi juddoo Banjul demee école Banjul St John's School laa commencé jóge St John's dem St Augustine's foofu laa jeexale suma ñaanga ma commencé mbiri liggéey liggéey bi ni ma ko commencé ci métier laa commencé te suma mbibit yëpp bi maa dem école maa ngi jàng métier yàlla ñëw def ma daal ci mbiri xarala goo xam ne daal mboolem lu nit di liggéey rek daal yàlla jox na ma ci xam-xam emut ci mbiri oto dinaa liggéey oto dinaa liggéey gaal mbiri yoon mbiri électricité mbiri machine heavy industrial machine si comme machine si daw nawet nii ak lu nu mel daal gaal nag xarañ naa ci lool lool lool mhm. te boo xaymaa ci gam yëf yi ñi fi des ci liggéeykati gaal yu mag yi ku ma bàyyi gannaaw rek amuloo ci ndaanaan yi te dinaa ci leeral lu bëri ma déglu Samba rek boor bu ma laajee rek dinaa ko tontu fi mu wokk mooy xeseen dinaa fa delloo suma loxo mi ne euh, soo seetee Gambie ñi nga xam ne ñoo xarañ euh, moom Bamba Auto Works moo ko waxal boppam ñu ne xam sa boppa ne kon oncle Bamba yaa xam sa boppa waaw kon nag ñu bëgg a xam euh, li nga xam ne mooy sa liggéey euh, fan nga jànge li nga xam ne mooy wàllum euh, li nga xam ne mooy auto mécanique. mécanique man maa ngi ko jàngee Banjul ci eh, compagnie buñ doon ooyee CFAO tey fi gars yi def Banjul magistrate court bi next door foofu la suñu workshop nekkoon ay tubaabi français ñoo ma mën compagnie boobu ñu ko ooyee CFAO suma boss mu ngi tuddoon luy jaaju. amoon na ci keneen koo xam ne ci Fomani la woon ñu ko ooyee oncle Souley Diouf ak Pape Benoît Samb ñii ñooy ñi ma jàngal métier waaye nag yàlla xam na ne bàyyiluñ ma dara mboolem loo xam ne xarañte la ci mbiri weñ jàngal nañ ma ko bi ma demee ba jot suma lijaa sa foofu ma dem ci compagnie bu ñoo ooyee UAC tey fi Apollo Hotel nekk Banjul bokkul street mhm. foofu yëpp UAC ñoo ko moomoon waaye US yi loo xam ne luy yëngu la ci Gambie fii ñoom ñoo ko amee woon du mbiri jaayam ceeb du mbiri jaay gerte loo xalaat ci àddina lu nit di jëfoo rek US yi dañ ko daan indil Gambia ñoom sax seen dem sax sooxee na Gambie bi nga xam ne lu bari manqué na bi te mënatuñ cee jot loolu yëpp luñ lu ma sàmbay war a laaj la ma def ci ab gëstu ndax nit ñi xam ne li ñoo jooy ak ne manqué na fi yëpp amoon na fi ñun ci wéru mbiri métier mii amul luñ ci deful ci àddina laabiir nañ ci yaatal nañ ko liñ jàngal ci doomu aadama soo ko xaymaa dina dem ay junne junne de soo jàngalee benn junne loolu mel na ni jàngal nga fukki junne bu dee ci mbiri gaal la noonu bu fekkee ci mbiri utu la noonu man am na su may xale yoo xam ne ñu ci soldaar bi tey am na ñoo xam ne ñu ci fire service bi tey am na ñoo xam ne style ñu ngay def mariñ eh, ndi burka démboo njaay laa toog rek benn waay di gëstu sumay mbir bi ñu wal boppam bi juuf suma bunti kër moom Dakar la toog mu ne ki ko jàngal lii fi mariñ man maa jàngal kooku macha waaw loolu nga gis naka la mbir mi yaatu ci mbir bato yi may dem di ko liggéey di wëññeeku si waat fii yaatu na daal yaatu boo xam ne daal alhamdulilah e, mbir bi nag balaa moo neex rek faatu di ma laaj may ko mun a jox li nga xam ne moo nekk ci bopp boppam Fatou di ko laaj bu mun koo jox xam ngeen ne nag man nu ma ko waxee rek man may laajte loo xam ne kenn laajtewut ko lu nit clé wut man dinaa ko clé kon nag oncle Bamba dina leer ah, bu boobaa rek ma ñëw si li nga xam ne mooy sa carrière bi ah, si li nga xam ne mooy ah, yi fi auto mécanique ñu bëree bëri dañ de faral di wax ne ñu dee def auto mécanique maanaam liggéey métier dañuy jànga you know xit na koo xam ne la woon maanaam xelam baaxutoon si school maanaam he was not book smart mm-hmm. you know um, la fa demee si yow sa sa case. déedéet demeewul noonu man tey mboolem loo xam ne xarañte la ci mbiri bureau soo ma ko tegalee dinaa dem liggéey naa ci National Assembly bi def naa ko fukki at. Mm-hmm. waaw nekk naa ci Banjul City Council as councillor foofu def naa fa ñetti taam transition bi ñun lañ tànnoon def ñu ko su fekkoon ne amuñ xarañte ci mbirim binda loolu du am. Mm-hmm. nde doo dem ci place boo xam ne da faa war a binda. di binda sosé wala di binda olof wala séeréer bi ma doon nak mhm. tax nag xeeb sa boppa weesuwul nga e mbiri mécanicien bi wacce rahasu la wala lele wala li, lol daan nañ ko oyé suñ métier bi wacce rahasu way wacce rahasu légui mo mo légui mo mo mo mo mëna def ku dul dara mu nekk ndaanaan bi ñëpp ko ko nde tey mun naa ci garage bi fi rek duma ñëwa dara suma ñëbi lu bon bon bon bon benn julen na ma topp wala ñaari julen loolu wàcce raxasu rek a ko mun te daaxanaa li ñoo wax ne Gambien si bugguñ métier ñun bi ñoo jàng métier mi bi léegi soo ko cegee mu ngi bugg a laal sixty years te biir sixty years yooyu leen ku naan Gambien si bugguñ métier yow da ngaa wax lu la neex xëy na yow yaa buggul métier ñun amul façon yi xeet buñ fi jàngal du naari ganaar du soose du séeréer du pël du joolaa du sierra leonean nigerian sénégalais yëpp man jàngal naa leen métier mi fii NYSS bi fi nekkoon dañ ma joxoon ay koo boo yoo xam ne maa leen daan jàngal métier ci different different fiil waaye dañ jékki-jékki rek siis loolu suñ gaa yi nga xam ne ñoo yoree mbiri njàngale mi dañu war a doxaat gestu doom aadama yi nga xam ne ñu ngi fi teñ am xam-xam ci mbiri xarala ak mbiri métier dañu ngi jël loolu di ko jox ñoo xam ne xamuñ dara dara dara dara dara ngir xëj na ñii suma xarit lañ wala suma mbokk lañ liggéey nag doo ko jox sa xarit da nga ko jox ki ku man man exemple laa jox jamono ji maa ñëw Kotu Kuwaare fii amul benn yoon bu fi am yoon yi fi nekk tey nii yëpp yàlla man. ma njaay highway bi maa ku njëkk ubbi benn moto fi daan jaar mu nekk one way soo ñëwee ba seen moto danga ngaa randu bool moto ba la mun a romb ci xarañte suma benn coopérative bu ñu ooyee Amadou Sané bés bu ne ma njaay nañ ut yàlla fii. yoone manjaay bi suñ ko jógul def ko kenn du ko def te nguur gaa ngi fi noonu lay jëlee suñ bagage yi dem ubbi yoon bi ba yoon bi yaatu mooy yoon bi ñoo jaar ni tey mhm. ñu liggéey ko dooree eh, ci Africhel road bi mhm. ba sës manjaay kundaa ci police bi tey doomu aadama yëppan koo yuus bi AFPRC ñëwee ñu jël contrat bi jox ko booto construction booto def ko taa waaye yàlla def naa yëf yi nekkutoon lu digal lool mu yàqu ñu joxaat ko CSI moom la ñoo jëfandikoo nii brique bi nekk ni tey ma jaay bi maa ko fi njëkk a defar bu nawetaan dama daan jël ay weñ di paaj di paaj di paaj ba nit mun faa jaar gis nga tey bi brique bi collapsé àddina si yëpp jooy waaye sant yàlla bi nguur gi dellu si waatee xalaat ba defar ko defar nañ ko nag defar bu baax même bu doon sax eh, autoraay sax mun na cee jaar fi mu nekk nii ñu ko ki ko door eh, soo demee fu ñoo ooyee Kolomba Road maa ko njëkk a ubbi te time boobu time AFPRC la nga dem e, e, fii road bi nii ñoo ooy Aïcha Marie mhm. maa ko njëkk ubbi mu nekk yoon mhm. yooni marché ngelaw bi maa ko njëkk a defar mu nekk aat road bu suuf yi neen la moto bu fa dem nga can mhm. waaye ma ubbi ko ba mu dem fële tali ndigi tey fi moto yi taxaw ñuy ko ooyee bundum garage yi basi mhm. foofa itam maa ko njëkk a doomi réew soo nee ji réew da ngaa góorgóorlu nga def loo xam ne dina jëriñ doom aadama yi mhm. wax du defar réew mhm. réew mi ñun ñëpp ñoo ko moom ku ci nekk talent bi nga am ak xam-xam bi nga génne ko soo ko génnee bu ñu leen boolee rek mu dox ñi nga xam ne nag ñoo amee mbiri xam-xam bi métier yooyu nañ dellu si waat gestu duggal laaj nit ñi nga xam ne ñoo xarañ ci métier mi man ñi nga xam ne ñoom laa fi amee xale yu ndaw lañ fi duggee amul kenn koo xam ne da nga ñëw di ut liggéey ma jël la déedéet. Ah, ba léegi rek balaa ñuy dugg si waxtaan bi ba mu gën a xóot ah, wax nga fi lu ama am solo ah, ñu ne doomi réew su nekkee si réew war nañ koo xàmmee naka lañ koo xàmmee mu def lu baax kon nag nu ko waxee rek mu ne Gambien dañ bari ñu am talent moo tax Gambien Talents Promotion ñu tuddee suñu boppa Gambien Talents Promotion fu nekk la ñuy dugg bàyyuñ benn laaka bàyyuñ benn nit képp koo xam ne rek yaa ngi am xam képp koo xam ne rek sa pare na ku discuss ak nit yi ñun dinañ la fekk si fi nga nekka ah, ma bëgg rek xam rek ah, fan nga baaxee ko maanaam fan nga faaxee ko si biir Banjul su ne njaayeen Bamba Auto Works ah, si ban njaayeen nga jógee Bokkul street number 27 mm-hmm. foofu Jabaate Kunda lañ ko ooyee ndik suma ñoom yaay ñoo ko moom waaye man maa ngi faaxee ko ci waali njaayeen man fu ma bàyyi moom lañ daan ooyee du Njaay Big Master marine master maanaam ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcce ci mbiri géej lool jamono tubaab bi mboolem bato buy dugg si Gambie fii su demul teeru la doo fi costé moo tax ñuy wax deret dafa foor <laughs> métier moomu man liggéey naa ci lu tolloo fanweeri at. sa papa say mag. waaw su ma papa liggéey na ci. Mhm. su ma mag liggéey na ci. man ma liggéey ci man dama liggéey ba bàyyi liggéey boobu pension ci. maa ngi ci njëkk a pension in 1987 mm. te bi maa pension maa ngi di soo ingénieur Gambia River Transport mm. diggante bànjul ba ba six fototo amul dëkk boo xam ne demuma fa gaal gu paanaan fii man maa laa liggéey xam-xam yi gaal boobu moom yàlla def ñu ko may as marine engineer mhm. di boat building aspect mun nañ ko di engineering aspect mun nañ ko di navigation aspect mun nañ ko ma ñaaxaat ñi nga xam ne ñu ngi amee marine bi tey fii mhm. soo compté ñiy liggéey di whole port authority mënuloo konte five nit yu mën a dem base maa ngi waxee ci télévision de five nit yoo xam ne dinañ dem basi te làmbatu wuñ amul am na ñoo xam ne ñu ngi fi des ma jox la benn exemple rek ku ñu ooyee Mooru Mbub capitaine la am na keneen ku ñu ooyee Alaaji Paasaar capitaine la Koota Masala waaye ñu ngi leen fi bàyyi di leen seetaan te yàlla nag moo moom moom mbiram saa yu ko ne jël bakkan ñun ñi it mbiri gi man soo ma laajee fii ba basi fi xeer nekka fi paas nekka fii laa war a jaar waruñoo jaar fi yëpp dinaa la ko wax loolu moom sant yàlla la soo leen fi amee lu mel noonu te ngeen ne yéen a ngi dawal ay gaal yuusleen ñu comme que ñu ngi yow ci mbirim marintam dina am fu ma laal ñi ma laal mooy géologue yi géologue yi ñu ngi bàyyi seen loxo gaa yaa ngi xeex ci affaire suuf yi ñoo gas ci dëkk yi amul kenn ku ci am xam-xam ni suuf si nga jëlee ci biir géej mun nga koo yuus muy tabax te doo xëccoo kenn doo xuloo kenn dina xuutal géej gi gaal yi mun cee daw man dama nekkoon ci benn institute bu ñoo ooyee institute of water transport Saint Petersburg la loolu nekk mu ngi nekk Russia ku click sa mobile rek di nga ko ci gis institute of water transport foofu dañ am land reclamation dredge yoo xam ne dañoo tiba suuf ci digg riiva bi di gas suuf soo xam ne dañ ko feesal ci ay gaal yóbbu ko ci saayit yi kuy tabax fa ngaa dem nga jënd suuf bu dee xeer it noonu dañoo jël dynamite explosif yi dugal ko ci rox si ci géej gi mu explose ñu jël xel yooyu direct dafaa nekk Washington doo laal Kuwaare waaye amul kenn ku am xel bi Gambia pour xalaat loolu c'était coow li fi amoon Faraba laa ni jàmbur lañ gas suñ jëlee lii maa wax ni tey def ko mu doon loo xam ne dañ koo gëstu ci géologie ñu seet géej gi riba bi waxuma la ci sii bi de bi ko sii bi soo gasee ci suuf daf laa jox mood mooy di waaye bu dee ci biir riba bi la SAND la laa saan saan boobu automatiquement du am xorom mun nga koo tabaxee mun nga koo concrétiser mun nga koo def lu nekk bu dee xeer yi la tam dynamite explosion bii la ñoo yuus mu toj xeer yi nga xam ne mooy sonal gaal yi ñuy yuus yooyu su ko defee duñ nga sati Kuwaare te li ñu sonal fii ci baakote doom saay bi Kuwaare la woon la na ko def gas rek musul ñoo xalaat affaire géej géej gi dañ ko war a yuus river transport bi dañ ko war a deekali tali yi yaaxu ne yëpp ñuy jël ay eh, sixty tonnes di ko eb ci benn moto su paanee nga jàpp mu bunda tali bi xaalis la nañ yuusaat riiwa transport bi ba pare yuusaat capitaine yi fi nekkoon ñu jàngal xale ñu yuus riiwa bi mm. Gambia rek moo am riiwa boo xam ne is navigable mun nga cee daw one hundred and fifty kilometers nautical miles without any obstruction ci ocean going vessel laa la wax <laughs> tey buñ toogee di bàyyi lii ñu ngee bàyyi suñu loxo mm-hmm. riba bi mun nga ci def irrigation ak leneen ak leneen ak leneen dinaa dee dégg sax ñuy wax ne ñun suñu riba bi mun nañoo fiit yàlla dëgg la nañu loolu waa ñun dafa am loo xam ne mooñu ñu gàllankoor te loolu itam dafa bokk ci ñun mooy léebéer soo béyee sa faro boo ko bàyyi léebéer yi ñoo lekk ko soo léegi buñ xalaatee boor boobu dinañ xam ne tam loolu mënut a possible loo ji ji ji maalo ci biir riba bi boo tëddi ja guddi lébéri dina am na fu ñoo jaar footu la nda ñun ñoo lébéré dëkk doo ne da ngaa éliminer waaye bu fekkee ne ñi nga xam ne ñu ngi déglu lii comme yow la ji bu ñëwee laaj ma mbiri riba transport bi nga xam ne mun nañ di fa saan dafa dimbale riba bi ba pare duñ gasati dëkka pax yi am nii duñ am dispute affaire laan yi nii du amati mm-hmm. waaw because su fekkee ne yaa ngi gas géej gi érosion indi waaw suma xam-xam dafa màcce ci loolu. Mhm. ma jox la benn exemple am na benn at boo xam ne suñ bàmmeele ñu ngay dem. ñëwaat. Mhm. bàmmeele bi ñoo dem dafa jaaxaloon Gambia lool Tamisa Dawda la. ingénieur bi nekkoon public works ñu ko oyee Johnson mu ne moom ingénieur la waaye moom xamul affaire yi géej man ma ne pat rek ak suma xam-xam. Mhm. ba waxtaan waaye waxtaana man rek ma ne ko loolu mun naa ko ñu jox liggéey bi alaaji Ablaye Diop. da ngaa seet rek diggante bi naka la sore de imaam nga ne ko léegi yow jox nañ la responsabilité nga réclamer géej gi because armeel yi armeel yi jullit yi la mm-hmm. man tam noonu laa simee suma suma mbuba takk suma ndiga ma nekk ci imaam nekk ci imaam ba yàlla jox ñu ci ndam mm-hmm. bu am xam-xam mm-hmm. moo daan ñaan yal nañu yàlla defal koo xam ne dina ñëw sëkkal ñu géej gi bi ñuy koo seen fa mu woon weesu nañ ko moo ku ñu ooyee oustaz tafsir Guèye ñii dinañ ma seede ci suma wax ji ñu liggéey ci liggéey bu rafet kera bi président Jawara ñëwee di seet liggéey bi mook maatiw Yaya Balde dañ surprise ñu ne mosul ñoo xam ne am Gambien am talent bi lan réclamé son liggéeykat yaa ngi fii dañ ñu yuusul mhm. projet yi ñoo jël indi ci Gambia bi di jël ñeneen di leen ko jox ñun ñi nga xam ne léegi mag lañ soo ñu tegee sax buñ joxee ñoo projet boobu dem. Mhm. waaye bu ñu xeebee jël ñu ne dañu ko jox te taxaw ci rajo yi wax ne Gambien si bëggul métier loolu laa daxa loolu amul. kenn du wax ne du dëgg de waaye loolu amul ñi am xam-xam ñu ngi fi nañ ñu yuus kenn moomut ba kenam. Mhm. mbiri géej gi néemal naa la ñaar alaaji Modou Mbuubang fi alaaji Pasarang fi Cheikh Omar Ndiayang fi. Mhm. amul kenn ko xam ne mun na maa weddi ne man suma xam-xam. màccewul ci mbiri géej waaw tegal foofu sa baaraam dina ma neex ah, mi ne moom nag ah, kenn du weddi lu mu mun ah, kon nag loolu am na solo bu baax a yaa ko dégg rek mu wax ko ñun Gambien si dañ dee faral di fàtte li nga xam ne moom leen moom maanaam dañuy wàcc suñu ànda yéen ñi nga xam ne nag am problème si wàllu suñu géej bi jokkoo leen ak ki nga xam ne nag Cheikh Omar Ndiaye ñu gën ko xamee si Bamba Auto Works ni mu ko waxee rek papaam bij master la woon moom it bij masta la ñu bëgg rek xam rek bij masta boobu naka lam doonee Eh, am na wax ne eh, sa papa bu mu big master sa mag bu goor doonoon na big master yow doonoon nga big master sa dom doonoon na big master xawma ndax lolu lu am la ndax lu amut ndax dafa nek lo xamne da ngeen ko daan inherit manam ci sen family bi rek njaayeen family bi rek la woon non non non lolu mom ci xam-xam bi la rek man bi suma pa gaañoo tuba bi ci bopam jëmono tuba bi la ñoo gis xarañte gum amone te daan jital suma broda bi ñu doon ooyee alaaji dawda Njaay ñu ne deug deug deug ki li bàyyam mun yëpp mun na ko bi ko suma bàyyam a doon ànd di fi bi mu nekkee xaleel noonu lañ ko ko joxee day rek yàlla def benn disaster amoon in 1957 mooy féeri Banjul féeri disaster boobu leen amoon mhm. soo bi gars yi defee waaw bi bi féeri bi féeri bi suuxee after loolu gars yi def commission of inquiry bi ñu defee commission boobu leen ci lañ wàccee Dawda ñu indi ku ñëw ooyee Kalilu Sama kooku jël position bi waaye bi gars yi demee ba ci biir gis ne daal mbir mi borom a ngi toog ñu ne ko sa toog ngi nii ñu doole ko foofu la toog bi mu ritaaya ba yàlla jël ko ñu jël ko jox benn morom bu ñu ooyee faaka faaka boobu itam daf ci toog bi pension moom itam xam-xamam màcc na lool ci mbiri géej parce moom bi moo dugg si tam ci géej gi fekk na ñu ngi ci géej gi waaw. ok yow naka nga ko jëlee. Eh, man trou Gambia River Transport. Mm-hmm. suma broda bi mos na maa fekk taati pere. Mm-hmm. ne ma yow lay def fii ma ne ko noo ci gaal yi laale kër daf ma yóbbu kër daf ma liyee daf ma dóor a dóor a dóor a nga géej moom fa sa doom di jublu moom doo óolu surtout mhm. jamono yooyu ndongo afda moom mhm. ñoo géej a dëkk mhm. da xëy nekk suba ci géej gi ba ngoon yaa ngi ci paasar fance yaa ngi ci biir gaal yi waaye daal yàlla puus ma ci rek ba jox ma ci ndam waaw tukki naa ci nag fu nekk foofu la ma Gambie riba transport yóbbu ma dem Russia turu gaal bi. waaw tu ci mbiri gaal muy marine engineering bi. ak leneen ak leneen leneen. am na sax ci certificat bi boo xam ne eh, di economic aspect of running a river transport fleet comme tey comme ferry yi nii man am na xarañte boo xam ne mënoon naa faa toog nekk directeur mm-hmm. waaye dama weesu loolu dama weesu loolu because eh, lu boo defee nangami at ci mbir mm-hmm. da doyal mm-hmm. lu ko mooy rek nga fat moo tax ñu toog lu bëri ñu bàyyi ko jàpp yàlla tok ni xarañteef gi emu ci lool dina ñew 1994 mhm. bi fi Yaya jami di dugg si mhm. keroog mu ngi fekk ma ngi lewul ben cold store saaru mhm. ñu gis ni ñu dugg see ñun ñu ñëwaat fi gaare suñu matériel ñu tok be boori 3 jëm suma kër la tok rek ay militaire ñëw rek ne ma yow dañ la soona state house banjul yëpp ne japp nañ Cheikh de bis bu july 20 second 1994 ku soldat jël ci rek yow am nga problème mhm. ndeke ñom lañ am nawek ño fay seen machine courant amul ñom ñu ngi communiquer ak ex président bi jawara ci gal gi mm. ma aga rek ex président ci mana mo ma ma bamba mané ñun amuñ courant de man ma jaaxle mu ne waaw ñii amuñ courant lu tax ñii maa indi fii ndeke machine yi lañ bokku leen taalal noonu laa duggee ma ceg machine yi def ci li ci war machine yi taal yàlla jox ma ci ndam courant génn that very day ci biir loolu tey ku toog naan man maa njëkk dugg ci APRC man ma fa nekkoon ak ñoom July 22 kon nag te dañ sacrifice suñu life loola tey bu fekkoon ne ku boobu dafa féeloon ñun ñi ñëpp dañ ñu doon téye ji caaj ñu trisin te tricine la boo xam ne yow xamuloo woon lu la ci dugal sax du ko man suma kër lañ ma fekka ni ma dugal ma duga dem defaral leen euh, service ba yàlla def ni ci ndam kër falaa toog a ñoom ba guddi gi màgget ñu door ma baay ma ñibbi si suma kër boo seet nit ñi gisaat ma su la déggee euh, dafa mel ni yow xamuloo woon ne ku am na da nga xam ne ku am na ba pare nga dugal si stér ah kañ xamoon naa ne ku am na ah kon yow oncle Bamba yow amoon nga fit de sañ bañ la woon ah ay ponkal yu téye waaw moom la woon nangooy ndeyam. ne ma ñëwal nga dugg si biir fii. fu maa dem ñu ne ma dugal. Mhm. ndeysaan du ma fàtte ñooñu am na kuñ ci doon ooyee Mballo Sédi Kane. ak Kéemeta Sambu. ak Layon. ba léegi maa ngi fàttaliku ñooñu ñu mhm. góorgóorlu woon lañ ci am ngor. Mhm. waaw li mbir mi tàng yëpp ñooñu bi leen fa gaa fekkee dawul. te ñu ngi fi ci dëkk bi ba léegi. waaye dañ leen underrate. ñu am xam-xam lañ ci liñ doon def. waaw Kéemeta moom mu ci service bi ba léegi moo Layon. yow yow yow mbaa ah, ki nga xam ne mooy woon former président bi Jawara bi nga duggee foofu noonu ku lijjanti leen laaj bi ñeneen ñi gisuñu la as ne ok Bamba dafa bokk si coup bi déedéet boobu sax Jawara fekk dem na dem na waaw boobu Jawara nekkaatu fa mhm. ñoom yi neen rek ñoo fa nekkoon ñoom soldaar yi neen rek ñoom soldaar yi neen rek te yaa ngi fa woon ñoom ñu ngi ñu ci kaw tiim hmm. bi yëpp ñu ngi ñu ngi sëpp woon ci kaw waaye man li nga xam ne moom laa xam ma defal leen ko rek ñaata lañ la fayoon jamono dara lañ ma fayul benn butuut ah benn butuut di jërëjëf sax dégguma ko ci nde ba maa ta ba maa ñibbi moom fekk na ñoom dem nañ seen biir néeg benn jërëjëf sax dégguma ko ci ba tey jii loolu lan leen si mën a jàngee danga nga da nga liggéeyaloon gars daal si yaama forox o maali forox non non ah suma réew laa liggéeyal rek nde ci laa jóge sax biñ toogee ñoom biñ toogee ba mu am 3 dies ci lañ yónni waat ndaw ne mané dafa am luñ soxla nga dimbalé ñu ci dé may leen lan ñu ne ma ah poñ bi ñu oyé primate fofu rek la moto yu mëna jaar té dafa yaaxu té yaa ngi ay matériel dañ bëgg nga dimbalé ñu lañ démé jël suñu matériel boba alaaji samba fall fo mo mew mhm. mu ngi nekk town clerk mhm. alaaji sahu mom lañ defoon mu nekk meeyo of banjul mhm. so mané leen légui jox leen ma gasuel ñu jox ma gasuel ñu dem jël suñu matériel ñu mu primate ba défar tonté bu ci gamtel bi ba motorable laal alen Street man ma wat def nañ ko tout dess muy liggéey bu correct mu yi am fu ñu ñu tek ci about two weeks ñu ñëwaat ci man ñu ne ma ma ñun kat dañu tana ay ño xam dañ leena tok ci tek ci transition bi ñu nekk council as interim mm-hmm. ñu tana ñu ñun nine amna ño ñoo sax dañu ragal bàyyi kan ak kan ak kan ñoo fa nekkoon fa nekkoon man Cheikh Omar Ndiaye Waraaj Ñang Mariama Diassé Nouraynou Kéeru Mansour Ba Baye Taal Samba Fall ak ku ñu oy ñun ñoo nekkoon ci kantu bi ak koto Kéba Guèye waaw koto Kéba Guèye gaañu na nit ku amoon ngor waaye am ngor du wax du def dara waaye soxla si moom hmm. ko toppatoo ba ñun naayn lañ taanoon waaye am na ñuñ taanoon biir Banjul dañ ragaloon mbiri soldaar yi ñu ñu bàyyi waaw mhm. ah, man ma leen day Banjul day mbiram moom xanaa ñu dee rek waaye du ma bàyyi mhm. ñu am ci ndam nag liggéeyaat Banjul ba Banjul ne coj mhm. waaw aj bi nga gis nii suñ xarañte moo tax sax gars yi xalaat def fa aj bi waaw de dañ dañ fa defoon ay garden yu rafet a rafet a rafet a rafet leen moo leen liit bañ jël aj bi ñu def ko mu nekk mënu ñun tey ok euh, monsieur Omar euh, dinaa ñëw si politique ak yow because euh, balaa maa def benn interview dinaa def ay gestu mm-hmm. déggoon naa ne nekkoon nga ab politicien biir Banjul mm-hmm. nekkoon nga li nga xam ne MP si biir Banjul nekkoon na tamit ab councilor mm-hmm. dinaa bëgg rek nga wax ñu about sa political career nga xuus tuuti si sa political career su ko defee ñu xam eh, eh, man bi dugg si politique bi waa Banjul li ñoo def délégation mhm. daanaka daan demoon nañ boori fotti nit fekk ma suma bunti kër ñu ne ma mbir mi dafa jot fi mu nekk nii de dañ bugg daal waa Banjul li nga xam ne ñoo am xam-xam ñu génn téye ñu ci Banjul may leen he waaye dëgg dëgg lii nag nag dëgg dëgga bokkul ci suma pexe yi daal ñu ne ma non waaye sa man-man moo tax ñu ñëw ci yow leewin lañ ñëw suma kër ci suba fa ñu nekk ba wan a after consultation nag suma yaay maa ngi ne maa yow de yaa nit ñi la aji Seynabou Jobaate ñun de ñun de yow de yaa nit ñi la te gannaaw ñoom ñoo ñëw ci yow seetal yàlla rek nga ànd ak ñoom noonu laa nangoo yàlla jox ñu ci ndam ñu tànn ñu man Cheikh Omar Ndiaye Daouda Jones Moussa Signane mhm. ñu taxaw élection win a win bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax yow ban parti nga taxawaloon APRC APRC waaw ñun ñett ñëpp moom lañ taxawaloon nettaan boobu ñun ñëpp APRC lañ waaw yeneen parti yi amuñu woon doole amuñu woon bées waaw amuñu woon bées so bi nga nekkee um, li nga xam ne mooy kansula boobu noonu ak uh, li nga xam ne mooy MP bi uh, naka nga seen jamono bi daan mel si biir National Assembly bi eh, National Assembly bi àndaa sa sago soo ci nekkee di nga ci nekk ba génn ci di nga dem dem ci alawuma sali Dan nga anda burum dekk bi sax nga dem jaar ci ay cadeau yo xamne du nonu lu ko jubu nga am ci mu wax ben mu ola turhal la wala mu gatchal la. yo ra nga mës am ab problème ak mo non non non man man burum dekk bi ci bopam ak num mu tamel dama xamanté woon ak moom balaa moo doon dara. da nga xamanté won ak yaay jaam. bu doya doya doya doyo ndé bokul sëriñ la yaro hmm. man ma dëkk bokkul nekk njaatigéem. Hmm. ñu joggé fa nek ci kambi kambi fi presse jagne moy won commande bi moma oyon ooyoon jox ma fa contrat way bam ma oyé daf ma né ma cheikh contrat bi day turi contrat la sa mun liggéey ak sa baxay xam sa rew la yena yi nguur du ko dé am ñaan nañ la rek ngay ñew duñu jappalé jàppale la fa nekkee won da na leen liggéeyal liggéey bo xam da na dem ay juné duñ ma daan fey dara sax yena yi na nak yo dinañ ma daan fey Moustapha ñoom fekk moom Yaya Jammeh ex président mu ngi nekk ak couple territorial gendarmerie. Mhm. bu bu gendarmerie am. Mhm. ñu nekk fa ñoom bépp ku bi ñëwee xam nga ko ko xamante ne. Mhm. waaw waaye man nag yàlla defoon na tam man rek maa fi mus a nekk kansula nekk MP National Assembly member at the same time. after that five years ci la gars yi indi beneen loo ne léegi doo mun a nekk National Assembly member nekk kansula at the same time waaye tam. nekk naa mu nominated councillor ñaari yoon full term ñaari yoon ba pare interim jotaat ma nekkaat fa ñu xaar élection bañ falaat beneen maire maa ñoom Aliou Mbodj ñu liggéey fa liggéey bu rafet nde bàyyi den bi ñoo ñëw kansul kansul bi seen eh, xaalis bi néewoon na lool waaye ñu liggéeyoon bépp dul dog ko bor yi ñu amee yëpp yàlla def ñu fay leen am luñ fa bàyyi waaw dama di dégg gars yi di wax ne jamono Yaya Jammeh Robert Stam National Assembly leen amoon maanaam assembly members yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñeena yu bari duñ daan wax li nga xam ne mooy réew mi mbiram dañ daan seet li nga xam ne président Jammeh moom la bëggoon ñu ko daan wax yéen seen jamono naka la assembly bi meloon. am nga kuy fecc ci digg géej samba ñi dinañ naan punda baa ngi nii di naaw. noonu la demee bu fekkoon ne loolu dafa am réew mu toll. Eh, yeneen na yeneen amoon na yoo xam ne am na ay gàllankoor yu indi waaye du woon assemblée bi nde assemblée bi mbiri looy wax la ñu record ko bind ko soo ko fa defee itam ëllëg ak si biir ci sa bopp bi laa tees man am na lu ma fa musoon a bañ bañ ne léegi eh, bu fekkee ne démonstration am na kuñ fi rey dara du la ci fekk man dama bañoon ne bokkuma ci lii maa ku ñu ooyee Dawda Ba ñun rek ñoo bañoon soo léegi ana Robert Stamp <laughs> latte ko gay? ana roba stambi latte na gay. man rek ma bañ <laughs> opposition bi sax guddi ko ga day ñew dima koy congratulate man len du mbiri congratulation legi tay su fekke ne nena legi bu fekke ñew demonstration am na ñu rey bakare rey modu te modu hejna suma jarbaat la jarbaat ka paté jarbaat kele la suñ ko la ñëwaat gis na ne du yoon nanguma ku nekk da nga am sa laysin pour wax li la neex <laughs> ma bañ am na ku jóge woon ci APRC sax ne ma yow yow baag ca nga yaa ngi nii ñu ngay limin nii nanguwuloo ci ma ne ko ngir yàlla yónente bi ñaan naa la ñu bañ a xuloo ci lii waay lay bi nga am laa am rek ku nekk na toppa wusam rek moo tax ni sooy bañ da ngaa bañ ca bañee kaay ba ba léegi am nañu ma naan ah bañ tegee loobi yaaw rek yaa bañoon sante naa ko yàlla lool kenn ki daaw daba la tuddoon ca la ko waa ji fiir mu daw dem Amérique bi tey ñëw moo nekkoon ñaani ja eh, waaw Dawda Ba sooy seetaan comme ni mu ko waxee rek mu ne yaa ngi Amérique ba te yéen ñi nga xam ne yéen a xam Dawda Ba kooku jar nañ ko ah, congrats maanaam wax ko ne nga ca ma ñëw rek comme na ko waxee woon ah, am na ab jamono boo xam ne mun ngaa nekk kansula ah, nga nekkal li nga xam ne tamit mooy MP nga ne yow rek yaa nekkoon koo xam ne yaa nekkoon MP the same time nekk kansula naka nga mënoon a jël ñaari fu liggéey am te ma mun koo def rek damaa fugg suma poos rek yàlla dimbali ma ci loolu mhm. ak sumay pexe mhm. du lampa yu bañ du pompe yu bañ du yoon yu yàqu yëpp noonu lañ nekkee noonu dinaa sutura sax ka nga xam ne moom lañ fa samp pour loolu mhm. loolu yàlla defaloon na ma ko nga nekkoon li nga xam ne mooy MP ma bëggoon a xam rek yow da nga daan toog ak ki nga xam ne mooy former président bi ah, di Yaya Jammeh maanaam di wax ak moom non bi ma nekkee MP benn yoon rek la mu mus a fekk ma toog te booba guddi gi màgget na dama tëdd ak kër ah. mënumaa nelaw daal ma génn ñëw toog suñu eh, bopp koñ fi ma dee toog ci Independence Drive ci suñu ron taax ma jékkee rek gis benn Nissan Maxima mm-hmm. bu ñëw break that was round about half past one to two mm-hmm. mu ne ma Bamba ni ma jógee taxaw nii rek muy moom mu ne ma tëddaaguloo bi léegi mu ne man time bi rek laa mën a génna seet dëkk yaa ngi ci jàmm ma ne ko waaw noonu la déparé bàyyi ma benn yoon boobu rek lañ fa toog wax kuppalut la daf daan kuppal gaay yi daf daan kuppal la man musuma jox dara nekk naa ci APRC ba génn ci musuma laal seen dalasi waaye man suma dalasi dem na ci mbiri APRC waaye nag Banjul laa gënoon a concentré ak li ko wóor lu tax nga cuusoon APRC time boobu moo fi sës yow da nga ragaloon maanaam nekk ab opposition waa na leer na reer duma ko wax gaay waxa rek waa Banjul mhm. musu ñoo ageen nguur nde soo ageen seen nguur te bugg a développement sa development dina nasi de ci afrika de ah ngeen baal ma de wa banjul ah, musunta against nguur way ndax nguur defoon na defaroon na wa banjul because gaay banjul ya, si banjul yeen si yaa ngi tali baxut gota yaa bon ak ñom sen eh, nañ delo ci sen xel gënaaw mm-hmm. man suma jamono defar nañ ñetti tali tuba ko ro ñetti tali tali daw da dañ ko defaroon furum but but mm-hmm. ñu defar tali faabale but but mm-hmm. ñu defar tesito bi but but loolu du géej gi jëloon na Banjul daanaka ñu ñëw réclame ko ba sante ko yàlla ne da nga daan nekk suma bunti kër nii ngay gis géej gi di yol bi ci boori eh, fin ah. mari na Parade géej gi daan na éeg ba foofu sooy dem Serekunda itam boo ñëwee ba bondoon géej gi daf daan éeg ba foofu moom kañ nañu wax ne rek sambañ buy feccee ci digg géej ah bool ne punda mm-hmm. waaye faa baaka rek kañ mm. ah am na lu mu fi def de. Yaya Jammeh am na lu fi def de. def na fi développement yu mag a mag a mag a mag a mag yoo xam ne buñ ko bàyyi woon noonu bi léegi. ñu ngay joy seetal coastal highway bi. seetal leneen si biir Banjul seetal aj yañ fa def. seetal féeri yi nga xam ne moom la fi indi. ak yeneen ak yeneen ay féeri xanxaa fi nekkoon. waaye yëpp moo ko ceeñ nii ba tey ñu ngi enjoy lii. ah kii fi toog nii tey tam. suñu diggee bridge. Ah, bu yàlla antulee loolu. ñu sante ko yàlla. waaw waaye comme ni nga ko waxee rek yow sax xam-xam dafa màcc si li nga xam ne mooy yëfi gaal ak ñoom seen. Mm-hmm. brique jooju noonu ñu baree ngee kuyéri ne Gambia ñiit neen leneen lu dul brique. ñeneen yaa ngi wax ne ah, brique boobu noonu maanaam xaalis bu ñu si war a dugal dafa bari lool te soxla nañ ko si yeneen ak yeneen. ñeneen yaa ngi wax ne lapitaan bi président bi war na moo consider lapitaan bi war na ñoo consider li nga xam ne mooy education system bi right now xale school yi ah, dégg naa ne ñu bëree bëri den fiil ah, maanaam ñoo fiil ñoo ëpp ñi nga xam ne ñoo paas so yow foog nga ne bridge boobu noonu ak sax xam-xam nu mel si bridge ak bridge boobu nu ñu ko designé ak nu ñu ko waxee yëpp foog nga ne war na ñoo wax yi fi bridge boobu bridge boobu sant yàlla la te dafaa nekk ci Gambia dream la loo xam ne luñ daan la su amee dina jokkale Gambie ak Sénégal comme que ñu ngi oote Sénégambie bii yaa ngi seet boo tukkee from South Africa ba Cairo am na highway bu fa nekk da ngaa daw a daw a daw a daw ba fàtte ci tali ngaa daw léegi soo ñëwee ba Banjul bugg a dem Sénégal da ngaa bus rek nga jàlla doo xaar féeri nit ñi dañuy bàyyi seen xel ci loolu et bu ñëwee ci mbiri lopitaan bi lu mu bon bon dégg ngeen bi nga xam ne loolu am na loolu lopitaan a ngi ci biir te loolu yëpp. gars ko playal ñoom ñu ne bañoon euh, li nga xam ne mooy bridge bi waaye bridge bi balaa ñuy xalaat bridge bi ñu xalaat yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñoo gën a important bridge bi loolu la gars yi wax waaw liñ play dafa ëmbal lu ëpp bridge bi bridge bi bokkul la loolu mhm. bridge bi boori boppam la lii booy ñëw ci mbiri fay ko mhm. dafa dem ay ati ati ati ati ati ati at mooy loo ni ñoo indi ci national assembly ñu ko ratify nii daf dee def ay hundred and fifty years ngay fay maanaam xëy na ten butut twenty butut fifty butut noonu la mbir mi dee demee waaye ñi xamul dañoo foog ne xaalis bi ñu leb noonu ci saasi saasi xaalis ngaa feyaat dañ ko dee wàññee wàññee wàññee ba mu jënteel gi du doon dara birij bi noonu la mel birij bi grande la dafa am loo xam ne mu ngi woon ci Gambia bi to ba léegi diggante eh, Baara bépp Passamance Sonkunda mosula am yoon dañ daan dubal dubal ni rek du ko fa def ne man time daw naa colonial des dama daan dem dex gi maa ngi liggéey liñ gis nii nañ ko sante yàlla ñii it liñ ñu dig nii yàlla na ko yàlla def parce que ku ko birij léegi féeri du fa amati. fototu ku ko birij féeri du fa amati yooyu yëpp dama ci liggéey ba pare fekkee xam nga soo fekkee duñ la mun a mbaamal man nag mbaamal ma moo neexul because dama fekkee am suma xam-xam boo xam ne yàlla ma ko jox kenn munu koo génnee te fu ma ne dama am xam-xam eh. kenn mënu waa weddi léegi nag xam-xam boobu laa bëgga réew mi di ko yuus di ñëw du ñu laaj mhm. pan na goo leen ñu laaj dinañ leen ci waxal dara yàlla ñu ko def fu mu neexul tam ah yay sedd ci njaago mooy wii ka teenu wikkateenu ah kon nag yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan wikkateenu ah kon nag dama koy wax rek déggati naa dégg dëggaa neex ñu ne ab dëgg kaani la soo ko rek da ngay toxoñu ah, kon nag ah, kii mooy Cheikh Omar Ndiaye ngeen gën koo xamee si Bamba Auto wak, tey mooy suma gan di seeni gan di leen jaajëfal bu baax baax rek di leen ne APS International ah, di former approve service ñoo dolel programme bi soo amee ay mbokk yoo xam ñu ngi si diaspora bi wax leen rek ñu yónnee la xaalis ak APS International yéen ñi nga xam ne Cheikh Omar Ndiaye seeni xolam di seenin oncle ngeen bëgg ko yónnee saku malo, bidon ngi diwlin manam ngeen bëgg a def ak mom ay nduga APS international ñu yobu ko ko be si bunti kiram me di indil ko ko fi nga xamne moy workshop am xale yaa ngi biir kër bu len bokka bu boba ci kanam dina len indil xale yi su ko defé ngeen gis lan la Cheikh Omar de dee wa yeen yi nga xamne ne ko bëgg yone yónnee yeen yi nga xamne ne ko bëgg yone cash power Cheikh Omar rek da ngeen ko ko rek wako ko mu wax len turam bu moo yusi ID cardam bi APS international mu defala leen ko ñi ñoy goor ñi ñoy jigen ñi ñoy ñep APS international yéen a mun gars yi doo moromi kenn ñu ñëwaat rek si seen jamono ak seen politique yow bi nga doon def sa politique yeen challenges ngeen daan am you know yeen challenges yeen daan am ci biir ah, national assembly bi. national assembly wax fa wax ju bari amul njëriñ man fi ma jàngee I was practically oriented. and I and man Rosia la jàngee I believe in practice. Eh, dañ ne in development final analysis you have to be practical. waaye soo nekkee fi naan wel wel wel wel wel wel te war a jël bloc teg bloc boobu du mus a tegu loolu laa gis na ci jamono jii dégg naa ñu naan national assembly bi du liggéey tali national assembly bi du defar néeg national assembly waaye da jóg nga dem ci sa line ministry député bu nekk am na line ministry buñ la booleel boo xam ne soo soxlee dara fa ngaa dem waxtaan ak ñoom jaarale ko fa rek loolu am sa area am na ñoo xam ne nekk nañ député ba jógee fa fu nag yi naanee sax mënuñ koo defal seen area loolu dafa ñaaw faro yaa fi am na yoon yoo faa mun a defar soo demee ci lokal organisation sii nii comme seen area council yooyu soo waxtaanee ki nga xam ne mooy chairperson bi wala mayor bi wala woowu soo eeva wax ko dëgg dëgg ànd fa moom du practical mu gis ko defal jigéen ñi ba léegi ñu ngi jooy loolu ntol man silo soto pour que taa farol ntol man ñi soto senere njorongol ti jang Banjul laa toog eh, berefet foo ñu berefet gii mm-hmm. bés dañ ma fekk sama bunti kër ñu toog ñu ne ñoom day ndimbal la ñëw ut mm-hmm. may leen ndimbali lan mu ne ma dañ am garden wër nañ fu nekk munta am yàlla def ci barke lool léegi Mrs Koor ma egg moom wax ko ko rek mu ne ma xay ñun ñu ngi amee loolu projet boobu lañ di xool foo ñu berefet seen garden bi dañ ko baabu waaye ba mu sës fensal leen ko joxal leen watering card over thousand watering card jigéen ñi ba léegi dañ ma dee xool ba léegi. foo fooñ yëpp ñoo ci jëriñoo te man Banjul laa dika moo tax ku jox ma a day jóg nga liggéey te ngeen bàyyi wax. National Assembly mun naa liggéey tali soo xamee fi ngaa jaar lu ko am na projet yoo xam ne ñu ngi koo joxe dafa am luy des. MP yéen a ngi dégg. dafa am luy des. Mhm. soo demee ci sa line ministry nga wax na directeur bi nga xam ne wala ministre bi nga xam ne moo nekk a works mu ne la ah. xëy na siège yi wala contrat sangam mu ngi doon liggéey benn yoon du ñaata matériel yu am soo demee woon ko ko dañoo jël matériel boobu rek dafa la ko fa te loolu sax du ñëw National Assembly waaye lu nekk nga indi ko National Assembly da ngaa laajte rek Mr Speaker sa lu tax yoon bi amul lu tax yoon bi am liñ laa tontu rek wen foon sa available doo ci mun dara ngay dem ak naxar waaye soo jógee dem bi nga xam ne ministre bi ko yoree yaa moom toog ngeen tête nga wax ko sa soxla daf dox moo tax ma ne leen MP bu nekk am nga line ministre boo xam ne ñu ngi la fa attaaj day leen a waxtaan seen line line ministre yi loo leen bugg ci seen gox yi di ngeen ko am su ko defee mu yombal yëf yi waaye nga toog five years mënuloo wone dara ne moo nga def man demal ci suma constituency ni nga fa fekk skill center fan e Banjul not Tubaakuut di whole Banjul man rek maa fi mun a wone ne lii maa ko fi def Ah. te bi maa def projet boobu leen waaw yi dañ ma doon wax ne yow li nga bëgg a def nii du possible nii man leen dem leen toog fii tan la poto poto la mun naa fee def lu raw lii ñu ne ma du possible wax naa la ne ci njëlbeen dama def land reclamation mhm. ba ma dooree reclamation bi ma blind ko ak mbalit mhm. mbalit laa def ba baax ma def ca la ma caa def tey nee fa taxaw ñépp di ko jëriñoo amna ñu daan jógee ba sé ñëw di fa mhm. ay skills yi ni comme affaire tay and day yi ni ak eh, eh, food eh, preservative ñoo def ni di defar ay cere yi leeg gar yi leeg yoyep dañ ko fa doon jàngale waaw kuñ fi joxati dara trial nga def fi lo xamné ne legacy la nekk ëllëg nga mën ko woné mhm. waye nga nekk ci place five years ten years mënuloo woné dara jabar ñu def la dara ñun sant nañu yàlla time bi ñoo nekk kansul toog nañ kansul ñu nañu léegi BCC school bi ñoo dem na le campement buñ fa demati sax buñ sa xalal jublu suñ foma meeyoo Samba Fall ne ñu jóg leen ngeen dem seet plat place maa honorable si la ñu jóg wër biir Banjul gisuñ benn place ñu dem Tubaakuroo ci tan bi gis fa benn place ñooñu dañ dee teel a jóg ba ñuy jël foofu leen it was almost hundred years ago bañ demee master plan bi ñu ne ñu noo Anglican mission bi moom fii gannaaw French school bi foofu lañ mujjee dem alaaji ne ma waaye su ma mag ji fii poto poto la de man ko dañ koo réclamer mhm. tey moom mooy Gaba Jaxumpa school bi ci njiitali Samba Fall mhm. ñu kati kati ci kati ci ba ba school bi taxaw alaaji Kemba Gasama mu gis maa ngi fa benn ngoon mu ne ma ndooke allah fi ta mu nekk la jang ma ne ko karam bu mu ne ma sànne i ñaamaata ñin lewo kono ñi foroo kono ma ne ko abe bete yàlla waaye tey school la suñ doomi doomi doomi doomi doom ñu faa jàng gis naa ñu jógee Serekunda ñu jógee Basse loolu yëpp sant yàlla la ku ebu rek liggéeyal loo xam ne dina jëriñ doomu aadama yi suñ bàyyi wax ju bëri ji dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokka tey man xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom lay foom fii am na ñoo xam ne seen sit sitaat yi ñu ngi dox ci dëkk bi xale yi nekk ci gox bi yëpp fii la ñëw ah, kon nag mbokk yi di leen wax ne rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents Promotion ñun nag comme ni leen ko waxee rek ku kenn waxul euh, ku ñëpp fàtte mais tey it ku ñëpp di waxantoo te it am na yu bari yu mu war a leeral ñun ñoo leen koo indil di leen indil waxtaan yu am am solo yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali rek ne ñu ngi toog ak ki nga xam ne mooy Bamba Auto Works euh, Bamba ah, bi nga nekkoon MP euh, nekk di same time tamit councilor mbaa loolu nekkutoon di doon affect sa liggéey parce que ori olof yi ñu ne benn lam du keleng mm-hmm. ba pare tamit fi sabar fi yow kena you know loolu la bëgg xam yalla daf ma jox nag xam-xam mhm. bu graw sax bu graw 1987 la retire xam nga loolu yàgg na de mhm. gis-gis mo mom mayoon loolu ba maa retire Gambia River Transport gay nan ma bul bay yow fi kenn ëpp la fi pay ci ñi gëna am pay nga bokka mané len mané lu nekk dafa am fu mo eme ci la retire ma pension maa ngi feeku social security foofu pension mais yàlla def affaire politique bi ñëw ma dugg ci fekk mécanique bi itam bàyyee naa ko xale yi te liggéeyatuma fi ma toll nii sax su ma bot paamituma pour ma liggéey waaye damaa ñëw toog fii di dundal suma xol di jox xale yi itam xel mu yaatu pour liggéey bi ñu gën koo mën a def loolu moom ma day indi fii. Mhm. waaye maa liggéey kansul tam kansul xalaat bu baree bare buñ ko sa nasaanee rek. balaa kansul biy génn sax man dem naa fa bay def ko du ko suñ njiit li dafa doonoon góor goo xam ne laa ilaa Samba Fall mhm. ba pare mu ne nekk njiit Samba Aliou Fall waaw mhm. juboo ñun ba bugga dee du teg kenn lu ko naxari macha moo taxoon ñu daan ko liggéeyal lu lu raw njortaam mhm. te man mi bokkoon naa sax fi ñu ko defal loolu lu nekk la ma daan gërëm waaw moo tax daal gëtanu ma daal liggéey bu bëree baree bëri force transition bi maa Mansour ba ñun lañ joxoon Banjul moom Mansour a ngi dëkk Kombo man maa dëkk Banjul période bi yëpp complete five years bi yëpp every day dinaa wër suñ constituency bi every day laa la wax mm-hmm. balaa seven dinaa wër di whole constituency bi gars yi naan kii rek moom kenn du ko ñëw wax ne lampa lakk na wala boos yaaxu wala pompe yaaxu mm-hmm. bi léegi maa ngi gis pompe yoo xam ne ñu ngi Banjul maa leen raaxaat defaraat leen ñu ngi taxaw yooyu yëpp maa ngi ñaax sax kan su lay nañ try ñu réhabilité taat stand pipe yi nga xam ne ñoo nekkoon Banjul because am na ñu ko niit ba léegi not all people can pay water in the compound mu ngi indi xuloo yu bari ci biir kër yi waaw waaye bu ñu leen ubbi waatee ci communauté bi ñu tànn about xëy na ten wala twenty def ko ñu nekka laissé xëy na benn comité bu ndaw nii rek kenn jiite ko comme bi dox ku root fay dala si ku root fay dala si bu ñu génne si fay am seen jàmm ah, yow mi nga xam ne maanaam am nga expérience bu bëree bari si lu demee ni ki council lu demee ni ki MP ak yooyu noonu ah, bëgg naa xam rek naka la sa relationship mel ah, maanaam sa sa sa sa sa defin ak ñi nga xam ne ñooy current MPs ak National Assembly members yi nga xam ne ñoo nekk biir Banjul. dañoo ñëw ñun suñu député bi eh, Ousmane Sylla mm. kooku suma rakal bi ko suma magam ñoo def yëpp ab daay bi moo ut lii dafa ñëw ci man ma waxal ko yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëf yi yombal lool ci moom hmm. ñun ñoo jóg takka suñu ndigal fu nekk lañ leen dugal nde man Banjul noonu suma téléphone moo ko téye rek win nga hmm. dabaax kansula bi hmm. pexe la maa ooyee <laughs> macha allah laa ko jox ba mu toog ci toogu bi macha léegi ñu ngee diisoo waaw ñun léegi nii tembe nii ti whole world Banjul not Box Ba Ward constituency lampa bu fa lampa bu taxaw mu ngee taal lampa yi yëpp a ngee taal koñ yi nga xam ne moo nekk ci ward bi yëpp suñ kansula bi def na fa dustbin te amul benn green Aziz Daba kenn ku ko am biir Banjul lampa yi yëpp taal na ci suñu wood bi loolu sant yàlla la ah, kon Banjul la ngay leer boor bu set city dina ñëw waxtaan a man mhm. te yi ñoo waxtaan yëpp mooy lu defar Banjul mhm. waaw diggante nag eh, Saaro ba Abdaay ku ci am loola xam ne lu la jaaxal kara am nañu ñëw di ma wax ne ma Charles Street Hot Street William Street dañ am bloqué kër yëpp mu ngi am spiro jaaro waaye dafa am bloqué yoo xam ne CSE bi ñoo liggéey drain si dañ ko bloc kër yooyu ñu fan nañ ñëw laaj ñu ñu wax la ñu génne ko nit ñi am jàmm waaw ah, yow ku la laaj tawut doo leen doo leen dem waxal am na ñi nga xam ne ñu ngi ko yeloo hmm. dama leen a waxal keroog dama oo dabaax wax ko mu war mu ne ma maa ngi dem léegi ki ki nekk Afdaay kansula bi ma waxal ko waaye kansula boobu gisuma ko te kooku suñ doom la mhm. waroon naa ñëw ma waxal ko mhm. xam-xam bu liggéey Banjul ñun ñu ngi ko am mhm. suweej bi fi mu nekk nii dafa am problème waaye am na ci loo xam ni bu kansul bi ñëwoon laaj ñu ñu def collaboration ak nawek bunta dina ci am léegi waaye buñ laajtawul ñun tam duñ tëb rek dem wax leen ko man rugiloo bi moo ut fi eh, meeyoo meeyooras bi nii mm. ñëw nañ ba ci suma bunti kër mm. ma ne leen man dafa am tiim bu ma far mooy tiim xala samba mm-hmm. waaye koo xam ne win na ko même bu dul ñun soo nii dee suma pexe boo ñëwee ma jox la pexe mm-hmm. a ah, ñëwagul de te waxoon naa ko ko mm-hmm. kera dafa jooy ba ronga ñam yi sumaay tuuti mu fees bool moom rogiloo mi ci wax ji ma ko wax noonu ak ah, ko waa Banjul lañ fekk ngeen nag man nekkaa xala ba pare mënatumaa bu rafet waaye yàlla ñoo dogal lii mm-hmm. waaye du suñ nasaxte mm-hmm. wala suñ ñàkk a man mm-hmm. ak leneen yàlla moo ñëwoon mbiram waaw euh, jamono ji naka nga gisee Banjul yéen ñi nga xam ne yow spécialiste nga xam ne yaa ngi am expérience euh, su ñëwee si li nga xam ne mooy Banjul ba ak Banjul tey naka nga gisee Banjul am na ñoo xam ne ñu ne dafa mel ni Banjul dañ ko fàtte am na ñeneen ñoo xam ne ñu ne Banjul soo amee sa gan maanaam doo ko mën a yóbbu si sa capital because of Banjul nu mel ñu ne ñu wax ko rek dee waaye tamit ñu wax dëgg rek si la bokk ñu ñëpp ay Banjulians leen mm-hmm. ah, soo nekkee Gambian rek ah, Banjul mooy suñu capital amul beneen capital lu dul Banjul mm-hmm. yow naka nga gisee Banjul tey eh, borom dëkk bi fi mu nekk nii dégg naa ci kàddoom mu ne daal fas na kii liggéey Banjul te ku ubbi kàddoom nag ak gémmiñam wax ne fas na kii ni liggéey Banjul loo cee wax dara am na ci pexe moo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Banjul nekk laas kuru yi nañuy ñëw di diisoo ñun mhm. ñun bànjul lañ xam bañ juddoo ba tey ñu ngi bànjul mhm. doo wër nañ àddina si yëpp man mii sax dama wur àddina si yëpp mhm. fu ne dem naa fa fu ne dem naa fa loolu yëpp ci baax yi yàlla la nekk waaye nañ ñuy gëstu duñu laaj mbiri bànjul ñu leen a waxal waaye boo diisee ne yow kansu la nga doo ñu laaj yow boo diisee ne meyo nga doo ñu laaj boo diisee ne ministre nga doo ñu laaj ah doo xam mbiri bànjul de bànjul dafa am secret waaw te boo seqee ressource waa Banjul ñoo la ko mun a wax te ñun suñ xool yëpp Banjul la ku ñu di ci Banjul dinañ jóg àndaa yoo ñu liggéey Banjul waaw suweej bi nag moo ñu gëtan lool lool lool lool lool ak drainage système bi yooyu yëpp am na pexe yoo xam ne bu ñu ko amoon rek mu dem rax ca dool yi yooyu yi nekk Banjul nii lu ko fanxa lu tuuti la mooy la aerial spraying machine nañ fexe ñu aerial spraying machine te bàyyi toogaay biñ toog E, suma kansula bi mhm. am na bés ñuy waxtaan ak moom ma ne ko ko nekk e, e, cligal vecto mu ne ma luy vecto mu clic rek gars yi loolu jox ko aerial spraying machine mu ne ma jine mhm. ma ne ko des na léegi bu ñu defoon noonu mhm. spraying machine yi bu dooree dox rek dëkk bi yooyu du amati kon nag yooyu war na moo génn baañ yéen a ko dégg ah, ki nga xam ne mooy Bamba Auto Works moo ne gay june lañ ko ooyee parce que rek ab pexeem ab xam-xamam màcc lool kon nag yéen a ngeen seetaan Gambian Talents Promotion ak APS International dara du doy ak ñi nga xam ne ñooy unique solution internet bu baax bi nga xam ne ñu ngi koo seetaan right now programme bi amul benn dog-dog APS International di leen jaajëfal ak unique solution yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si diaspora bi ñëw leen Gambia jokkoo ak unique solution ñu provide leen internet boo boo xam ne doo leen ko am si benn network fee na rek ngeen ko amee si unique solutions euh, ba léegi rek ñu ñëwaat si li nga xam ne mooy sa carrière ñu bàyyi bu politique bi tuuti ñëw si li nga xam ne mooy sa carrière ak auto mécanique euh, ñu bëgg a xam rek euh, li nga xam ne yaa wax léegi nga ne buti neexatut soo ne buti neexatut lan nga lan nga lan ngay try ko wax waaw foo buti nam meloon melatu ko daan dawal moto di dem fu la neex loolu yëpp mënatuma ko léegi nekkul na nag yi nag comme cataracte la ak yooyu waaye àddina moom lu nekk dafa am fu moo eb waaw lu mel noonu moo ma dal waaw dinaa de mën a demal suma bopp dinaa de gis sabaati ñu tout miti saxeet rek waaye maa ngi mën a jëm waaw dem naa Dakar dem naa eh, suñ eh, Cheikh Saïd bi mhm. waaye daal amoo mhm. maa ngi mën a moom di jekkale xale yi di leen teete ñi nga xam ne bugga nañu am xam-xam ci mbiri liggéey maa ngi ñëw fii dóor bu set leen mën naka waaw jafe-jafe yi ñu am yëpp ñàkk ñi ñi nga xam ne ñoo yore mbir mi di jokkoo ñun rek mm. ne am na ñoo xam ne ñu ngee jokkoo ñoo ñoo ngee jokkoo ñoom ñuy leen a dimbal dimbale ci mbiri loo xam ne mun naa doxal li ñoo jàngal xale yi ñun loolu yëpp amuñ ko waaw te suñ ko jotee du mun ku mel ni jiitite ay suñ ñëwoon di jokkoo ñun xale yi dañ dee nit practical mm-hmm. suñ ñëwoon jokkoo ñun ah ñu ñëw di def seen pratical yi fii mhm. ñu provide leen ay machine yoo xam ne dañ koo tas mhm. di ko posé benn benn benn benn benn benn ba mu taal mhm. su ko defee soo jógee fële rek ak sa këy practical bi ñu la jox nii. Mm. foo dem nga mën a dem ak mm-hmm. loolu dina nekk lu am solo. Ah, dina ma indi si leneen li nga xam ne ah, comme noo ko waxee rek nga ne kenn moomut boppam. Mm-hmm. Ah, te mag daf dee am mm-hmm. tamit dem daf dee am. ma bëgg a xam rek li nga xam ne mooy sa njaboot amuloo kenn ki nga xam ne mu ngee def li nga xam ne mooy auto mécanique. Eh, si sa doomi boppam xale la ñuy indi naa fi suma doom ñaari yoon ñetti yoon. Mhm. waaye daal liñ bugg a daal. Mhm. du affaire yi mécanique. Mhm. bugg nañ dawal nag moto lool. waaye nanguwuñoo jàngal mécanique bi. waaye nag yàlla def na ñi ma fa amee itam. te juruma leen. comme suma doom lañ. waaw ñu ngi jàng bu baax te am na ñoo xam ne seen talent fi mu nekk nii weesu na seen njort sax. amul dara lu leen coow. wax naa la ne fire service. du fa rek ki nekkee. moto yi leen njëkk a from heaven dafa Pan. rek sama ah sama rek moto yi yaaxu nañ te dañ ñu ko may li su taxawé rek dina ñaaw mu ma ci lool bunti fay service bokul sërit falaa liggéey ben bu ma njëkk a liggéey def ci ndam bu reuy rek suñu ma léegi fay service buñ ubbi station bu gëna nga jox ma ay nit fo démé fii ba bassé ña fa nekk yi ba ma wutu woo la ñëw wallahi lool mhm. sante yalla la roje itam ñëw nekk ci tànk boobu xanaa léegi lañ gisatul gars yi kañ waaw léegi moom gisatuñ leen de wax dëgg tam daan nañ fi indi seen xale yi ñu leen a jàngal ñu daan évaluer xale yi nga xam ne every day dinañ seet nag sa naka nga atteindre su weer dee tam ñu seet ñaata yoon nga ñëw lan lañ la jàngal waaye loolu yëpp gisatuñ ko léegi te am na ñu ko defal mm-hmm. waaw waaye ñun ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yalla bu baaxa baaxa baax Ousmane Cissé nak ci suma office daf dee wax né euh ah, miné da ngay def nii miné wi drive forward mo moko ko wax ah, kon nak lo wax amna solo bu baaxa baaxa baax lolu dina ma indi si Benen bi nga xamné mo ah, moo ni nga ko waxé rek amna ñuma wax né Bamba time bu mutu bu la jaaxal bir Gambie mutu bu bañu Natal, taal ku la ko indil rek dang ko daan mëna défar Aziz Daba dila la wax jinné ñeneen di la yenen tour ah lan la lon loolu eh, yo da nga da nga inherit woon maanaam li nga ah, xam ne mooy métier bi ah, di yëfi moto ndax da nga amoon ab maam boo xam ne daan def oo ab papa oo ab bàjjen oo da nga juddu rek yàlla may la xam-xam bi da nga hmm. hmm. hmm. ko demoon jàngi non man fu ma fu ma man moom mbiri géej la xam waaye mbiri gaal yi mbiri moto yi weñ yi nii ku ñoo ooyal luy jaaju moom moo ma ko jàngal luy jaaju boobu tey doomam bu góor ñu ko ooyee benn jaaju naweeg distribution bi nga gis nii waye yu mag yi nga gis ni ñuy langa nii overhead waye si yëpp moo na a install fii léegi léeg mu dem fii ba South Africa dem liggéey ko xam nga loolu xam-xam la mm-hmm. kooku nag man moo ma jàngal papaam mm-hmm. keroog maa ngi ko jox tool yi papaam bi dafa déglu déglu ba rongu jàmbur mm-hmm. xam-xam yàllaa ko jox nit waaye bu la ko yàlla joxee itam trial nga siyaa ko ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal man li ma jàngal ci doom adama bari na de munuma koo xayma te ba léegi suma xam-xam am na ñu see wéy am na ñoo xam ne ci lañ def seen live yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp xam-xam yàllaa ñu ko jox mm-hmm. waaw nga mun a liggéey gaal liggéey muto liggéey leneen liggéey leneen liggéey leneen loolu yàllaa koo jox nit mm-hmm. waaw waaye suñ time bi ñoo liggéey ci gaal yi mm-hmm. gaal du taxaw Gambia fii waaw bés toog naa ñu naan féeri yi dañ def nii dañ def nii ma yëngal suma boppa waaw féeri yi yaaya jàmme mujjee indi fii ñu jóge woon e, dëkka bële tooki mm. ah mm. gris mm. lañ jógee yooyu mënoon nañoo dox fii bi bi raam bi di jékki-jékki dem géej dafa am ku ma waxtaanal ma wax ko lan tax raam bi dog mun ne ma dëgg-dëgg li nga wax loolu moom mooy li xew yow nga xam ne lii moo tax jóguloo dox si. seen mistake la ñoom si seen boppa ñoo ñu fa nekkoon na ñooy borom xam-xam yi. waaw waaye yow bu nekkee de yaa leen gën a xam-xam fooguloo woon ne mën nga leen a question wax leen ne foog ngeen ne lii ngeen war a def oo lele looloo tax ma yaatal ne. Mm. ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci mbiri géej gi. Mm-hmm. comme director of ports. Mm. operation. Mm. marine engineer bi. Mm-hmm. na wàcc si ñëw di ñu laaj. Mm-hmm. moom lim jànga na eh, Ghana ndi fi Naval Academy bi la dem rek. waaw wala Ghana Maritime bi fa la dem rek. ci bir classroom nga top, duñ la jox gal ni dawalal mhm. ñun dañ dawal gal tas gal, waaw tas gal. xam nga wax na la ne in final analysis in mhm. whatsoever you are doing you must be practical in the final analysis mhm. lolu moy li ma wax loolu dafa giseen gor gor lu ñuy practical di practicalize li ñoo def waye dem gaana ñoo fi rek ñu jox la bari féré di nga dugg ci canal bo xamul de <laughs> waaw té da nga rir waaw té da nga rir wax la ne amuñ five capitaine yoo xam ne mun nañoo daw fii ba base te laaluñ xeer wala demuñ cangal gaal mhm. nañ tray ñu jàng ko ñi ko mun ñu ngi fii mhm. nañ jàng métier yi te ñi nga xam ne ñooy joxe métier yi mbiri métier yi nañ ñu ñëwaat ci ñun local people yi mhm. ñu génnee xam-xam bi joxe ko ba kenn kenn moomu ko yaatal naa wax jooju gars yi technical di jiitite ay bu ñëwee gis nga duñu waxtaan ak ñoom waaw soo jàngee ba nga xam ne jox nañ la sa këyit ñu la demal def practical for the three months mhm. boo fa jógee rek naaw naaw ubbi garage mhm. waaye yi maa dégg nii bari nañu caa jógee sax boo toogee ñoom laaj leen du mun dara dara dara dara dara dawal féeri fi lay Banjul mun ngaa guma sa bur sax nga dem Banjul ñuul mhm. nga dem Baara ñuul you know liggéeykat fi borom xam-xam yaa fi. dëgg la ñu use di ñu laaj ñun laaj rek lañ ñoo def laajuñ leen consultancy fii laajuñ leen dara. xanaa lu ñu ene jox ñu. waaye nañ bàyyi di wax ne Gambien si amuñ talent. loolu moom amul. amul man mun naa laa ne loo xalaat loo xam ne lu ñoo defar practically la buñ ma laajee am naa ci xam-xam. kon nak lolu amna solo bu baakha baakha baax lolu amna solo moo Gambian Talents dañ koy wax rek ah, ñu nit luñ believe mo nek di practical way of training the young people xalé yi dañ nit ko train leen jox leen de practical knowledge way nga ne tay amna people bi amna people paper bi la te amuloo di practical knowledge du dem onko ba mbaa ko war loolu lu ama am solo moo tax it rek sun internship bi ñu believe so much ci practical world ah, Bamba Auto Works degon na ne musa Afia Ngom wuyoon na la ah. waaw Euh, ma bëggoon a xam rek sa diggante ak Moussa Afia Ngum balaa ñuy dugg si woy bi. li Moussa xam nga mécanique la doon jàng. Mhm. waaw mhm. moo tax mu wóor mu woy artiste bu daanu ba leen. Mhm. wax na ne ci sa métier. ngaa doonee mbur. mbur mu ànd ak ci boo fekkee ne yaa ngi féexal nit ñi. ndeysaan lu nekk nga ci mun a amee. macha allah addina yëpp métier ko amee. loo gis ci àddina Moussa ne métier moo ko amee loo gis ci àddina boroom ouvrier moo ko defar moo tax mu wéyaloon ma ouvrier boobu mhm. mu ne mooy liggéey machine mhm. defar ko nga kontaan ouvrier ouvrier ah. Cheikh Omar Ndiaye sa bànj mbir mi demee woon ah. yal na ko yàlla xare aja amiin yaa xam-xam nga nga gis noonu mhm. Moussa booy déglu li moo wax ci kasetam yi ak ci rekoodam yi yëpp xam-xam la dëgg la lu wax rek dafa mel ne luñ tibee ci aaya lañ ko tibee ndeysaan waaye saagane nañ ko saagane nañ ko waaye nag yal na ko ko yàlla fay fam tëdda tey waaw Moussa borom xam-xam la woon mhm. am na ci ay cligam yoo xam ne sax mhm. fii la ko defee mhm. Bamba Autobus gii la ko defee radio Gambia naka TV Gambia ñu ngi amee yooyu pléyatuñ leen bi mu def ci féeri bi Banjul Banjul pléyatuñ ko raayo baa nga afdaay loolu am la raayo bi afdaay la nekkoon dafa amoon bu nekk njonen am bu nekk opposite terminal am bu nekkoon eh, compagnie Afla yi. Mhm. raayoo la tubaab bi daan éegal muy flat. Mhm. saa yoo xëyee suba di nga gis ku ko éegal. looloo tax nga déggal raayo baa nga Afla yi. Mhm. raayo boobu amoon na. ndeysaan am na benn meeting bu ñu doon musa def ndeysaan. suñ ma Madike Fall. mu ne fekk teguñ raayo baa nga Afla yi. du jog wax ci meeting bi. ñu teg raayo baa nga Afla yi Madike kër ak la wax. bi ñëpp kontaan. moom it jël na ko yàlla xare ajal. amiin amiin ñooñu bi ñu leen ñàkkee Banjul. ci lañ luus lu bari. léegi ñi fi des nañ leen jox boppa ñi nga xam ne ñoom lañ teg ci place yi mm-hmm. nañ ñuy laaj mm-hmm. nañ ñëw laaj ñu ñun waa Banjul mm-hmm. Banjul soo ko xamul doo mun a amee bi Banjul te waa Banjul bokka gi dafa doon loo xam ne Banjul yëpp benn boppa la kenn mënu ko xam te yow mii di wax di ma interview nii su ma la waxoon mbokka gi nga xam ne laalante ni ñoo yow di nga ne xanaa déedéet kañ Banjul benn bopp la de. benn bopp la benn la. Mhm. amul kii lii la amul kii lii bu buñ toogee waxtaan rek na am fuñ bokkee. Mhm. waaye ñi nekk ci kaw. Mhm. ne ñëw laaj ñu mbiri Banjul ñu mun leen mbiri Banjul. ñu dimbale ñu ci Banjul na ñu liggéey Banjul. dëkk a xam ne eh, réew moo xam ne amul capital. bu rafet. Banjul rek laa ko gisee. yaayaa nag dafa mistake foofu. ñu li taxoon ñu dugg ci politique defar Banjul ak Gambia la. try nañ liñ mun yëpp waaye daf ñu négligé loo mu ne moom dina defal boppam li mu xam looloo tax man bi ma amee ten years ma ne xaaral ma bàyyi kii ma jàpp suñu boppam waaye def naa ten years suur kël te ten years yooyu ci la Yaya Jammeh liggéey li mu liggéey li ci des na ci bu nit ñi teg seen bopp waaye ñun bi ñu demee yi gisatuñ luñ xam ci lañ bàyyi waaye liñ mun yëpp defal nañ ko Banjul te liñ desee ni itam Banjul lañ ko konomil waaye li ma ñaan rek ñi amee place yi ñuy laaj ñu leen a waxal ne ñuy laaj ñu leen a waxal defaguñ dara de. defaguñ dara wax dëggu yàlla. waaw gisuma kansula boo xam ne def na lu fiir suma bët. suma booy bi nga xam ne suba su nekk mu ñëw laaj ma dabaax lampa yi laa ko njëkk wax. am na yeneen projet yoo xam ne. ñu ngi ñu ngi non ñu ngi sosteen. yoo xam ne ñu ngi ko war a def ku mel ni projet e, Tobacco root mhm. Celta Afrique ñoo e, jëloon Tobacco Road e, Ibo Town. ak benn village bu nekk biir Kaama. Mm. projet bu am doole la wala ñoo tra ñu réactivé taat projet yooyu leen ñu ko loolu suñ ko liggéeyee. Mm-hmm. Tobacco Road dafaa mel ni Kigali. Mm-hmm. lépp lu bees dañoo def. Mm-hmm. ay néeg yu bees ay taax yu bees. waaye gaa yaa ngi ko xaw a maa ngi ñaan kantul du ñu seetaat daal. ak Celta Africa. du ñu ñëwaat réactivé taat loolu ndax projet boobu ñu. wax lu ama am solo ñuy ñaanal ki nga xam ne mooy suñu papa di oncle Moussa Afia Ngom nga wax lu ama am solo si doo ñu tuural tuuti rek si woy ba xam naa ne yow la ko woyaloon ouvrier ah dinañ bëgg rek nga wax ñu tuuti rek si woy ba yëbul mag ñi yëbul mag ñi sa Banjul mu ne bu sa métier mokkee ah. loolu couleur yi àdduna ah. Moussa luy sa couleur mu ne man musicien la Bamba luy sa couleur man mécanicien la mm-hmm. muy ouvrier ouvrier ouvrier fonk ko war na ne ouvrier loo gis si àddina moo ko liggéey te nit ñi nañ tra ñu practicalise ne ko ouvrier ñu mun a liggéey suñu réew without practical dara du dox maçon baa ngi fi kapenta baa ngi fi welda baa ngi fi tôlier baa ngi fi pinturkat baa ngi fi nañ leen jublu ci métier ndax ñu mën a defar suñu réew te bàyyi wax ji. yaa ko jàngaloon liggéey. non Moussa nijaayam. nijaayam moo ko jàngal liggéey. nekkaa moom man sa tontu. waaw hmm. te pare. Hmm. maa ngi gërëmaale itam suñu jabar bi soxna Diop. Mhm. am ci soxna ñu ngi laa nuyu. ak xale yi dégg nga jàmbaar bi. Mhm. mu ngi ci moom mu ngi ci moom. amiin yaa kooku suñu yaay la suñu yaayi bopp la ah, Moussa Afia Ngom xam ngeen ne rek moom it amoon nañu ak moom interview live and direct ak man mi nga xam ne maay Fatou Samba jamono bi nga xam ne mu ngi dunda dem leen ba ci kiram def moom lu bëree bari ak Gambian Talents rek ñoo leen naa indil ku leen kenn indil ma bëgg a xam rek. Ah, Moussa Afia Ngom bu mu la wéyalee wéy bii di Over Real mhm. lan loolu def ak yow Cheikh oma te dama xam ne def na li ko war ne moom daal wu géej fii wax naa la ne am la kiligam yoo xam ne fii la ko defee. waaw waaye woy bi da nga xamoon ne daf laa woyal. woy bi ba mu dooree woy la ko commencé foos albumam ndakaar su ma njël benn Ndakaaru Njaay ubar yéen si dañ yàgg def lu bari maa moom dañ yàgg def lu bëri maa moom te yàlla def tam mbokkaam yi xam suñu diggante. Mhm. jabaram yi xam suñu diggante maa moom. Mhm. Moussa Kañ moom ngàcce ngaalaam. Eh, dégg naa ñu ne yow ak Ousseynou Ndiaye Senior. Hmm. Eh, maanaam yéen a bokk ndey ak baay loolu lu am la. waaw ah, ñoo bokk ndey ak baay. oh Senior. ok léegi lañ doon wax nii. léegi léegi. suba su nekk dina ko eh, moom it mu nekk ab ndaanaan boo xam ne ndaanaan boo xam ne la Gambia kenn du ko weddi naka la meloon yow Moussa Afia Ngum wëy la sa rakk tamit di def li nga xam hmm. sa mag waaw di def li nga xam ne moom it wëy la naka la loolu meloon si famille bi. waaw ah, Moussa. yàlla daf ñu bokk ñu bokk a jubluwaay kële nag dafa doonoon suma mag waaye ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon jamono comme ñoom Aliou ñoom Bada Touré ñoom Alaaji Baabu Sow ña la si ñor te woyu ba léegi foo ko teg ci suba waaw waaw ñooña nag ñooña nag ñooñu ñooy ñi woon amoon woon Banjul ca jamono jooju leen ñoom ak Siga yi mhm. ñoomin Eh, Kassi Diané. Mhm. ñoom Oussou Fall. Mhm. ñoom yéen Youssou sàmba mhm. ñoom ñoo amee woon Banjul ca jamono. waaw ñoom seen nekki neex loola ñoom mu jàll. waaw ñu nekkoon fiesta bu nekka a McDonald loolu moo indi woon woy boobu leen. moom nit ku nekk rek ci nga tollal jamono rek. yéen mën a def. te ñoom ñu seen jamono dëgg dëgg bu ba nekk na Banjul. moo tax may la. Banjul benn bopp la. ku ko xamul bu fekk waa Banjul di xuloo nga dugg seen diggante. li nga xam ne moo war nguur gi fi toog nii tey nañ gëstu ci ñun waa Banjul ñu waxal leen Banjul waaw ah, te loolu soo ko waxul président waxuloo ko dëkka hmm. soo ko waxul maire bi waxuloo ko dëgga hmm. soo ko waxul vice président waxuloo ko dëgga nañ ñu dimbale si Banjul ne ñoom ñu ñépp jaar nañ Banjul te Banjul nga jaar fa nga bàyyi ko nii Yaya Jammeh toog gi mu toog twenty two years gi mu bàyyi ko Banjul ñeneen ngeen ñëw ñeneen ak yëpp ngeen bëgg koo bàyyi nii independent drive rek mënoon nañ koo laal within one month rek ku dugg laajte kan a defar lii. Mm-hmm. te pexe yu ndaw ngaa def. Mm-hmm. man ku ma laaj mooy wax la ay pexe buñ ko dooree one one one month rek ñu gis facelift boo xam ne dina jaaxal doom aadama yi. président Adama Barrow sooy seetaan rek mm-hmm. ah, war rek jokkoo suñu papa ji ah, mu jox la ab xam-xam ba te ñi nga xam ne yéen a amee wàllum ministry of ah, works communication ak yooyu noonu jokkoo leen moom. man li ma ne ci suma mbir. Mm. xam ne yaa ngi toog ci place fii. Mm. su ma waxee li ma wax doo ko mën a wéddi te xam nga ne man ba ma nekkee xaleel bi léegi ci liggéey laa ne mosuma nekk ci jaar ministère of works bi ñun ñoo def suñ xaleel yaay yëpp xamante nañ biir bàñ waaw am na ma bu baax keneen tam ku fi xam ne mu ngi nekk fi amee position xam na ma bu baax xanaa gan ñi waaw te Banjul moom bariwul gan waaw Euh, nga wax lu am am solo euh, ma bëgg a ñëw rek si loolu euh, yow nga ne yaay Bamba Auto Works naka nga indi tur bi Bamba Auto Works sa tur nekk Cheikh Omar yow nga ne Bamba Auto Works maam Bamba la ndax kala la maam Bamba la maam Bamba waaw man sa Touba jamono Serigne mhm. e, am na ku daan wër ajuma yi ak àllarba yi ñoo joxee murit dañ dee jël àllarba dañoo wër dafa am ku ñoo délégué muy wër loolu mhm. jamono Serigne Fallou kooku bu ñëwaan suñ kër suma yaay man la daan jox ma dem di ko jox Baye Fall boobu Baye Fall boobu itam ñaanal gi ma daan ñaanal moo ñëw nii soo taxawoon terminal tey ne Bamba oto boobu kër te kenn mënu ci dara soo ne Cheikh Omar soo demee Touba boo ne Bamba sëriñ ba xam na ma hmm. laa amul sëriñ bu ma xamul te lu ñoo taxawal fii ci mbiri murit dañ ma koo yëgal Pape Demba Diop mi toog nii mhm. ñun ñoo ñoom papaam la woon ñoo ñu ne woon seen xale mhm. xam na suma biir lool kër mm-hmm. kër rek mu ngi taxaw sama bunti kër mm-hmm. naan gaa yi nit ku a ngi nii eh, mu nekk lu ama nga ay murit leen ñun ñëpp maa leen naan nuyu si turi ki nga xam ne mooy Bamba Auto Works di nuyu ki nga xam ne suma nijaay bopp la ah, di yooni murit la ma uyoo di Lamine Touré ñu ko nuyu foofu sa Sweden moom it ab murit la ah, ba léegi rek xam naa ne lu des si suñu interview bi bari wut noonu waaye dinaa bëgg a xam rek comme na ko waxee Yaya Jammeh after ah, few years nga ne dafa fail mm-hmm. loo miin si ne dafa fail xam nga fail déglootul nit ñi lu ko neex rek moom la doon doxal man la man ten years laa def ma bàyyi ko man mënumaa dem ku dul déglu nit ñi te bi maa bàyyi mm-hmm. waxuma ko kenn te kenn ñemeñu te ñëw laaj ma mm-hmm. te ci founder member APRC yi la am na tey ñu naan ñoom ñooy nangam ñooy chairman ñooy directeur ñooy nangam APRC yi dañ ma ci fekka mm-hmm. gis nga eh, téere biñ teg taba nii tey ñu naan community of elders Council of Elders nangam nangam nangam nangam nangam Pape Cheikh Seka e National Liberation Party mom document bobo la ma jox man mako jël teg ko ci e, congrès congrès boobu këyit googu moom la APRC di doxee nii mooy ciapasin yi ward councilor nangam nangam nangam man maa teg loolu kon Gambie yëpp ku nekk da nga indi sa bos man bi ma jëlee teg time boobu man may des officer bi Banjul mhm. moom la ko ay APRC di doxee nii ba tey te boobu am na tey ñu ndamoo APRC ñu woon mhm. ñun ñoo tomboog jaata bi classe lañ APRC mhm. moom bi moo nekk des officer man maa ngi nekk des officer dem naa ba nekk ci national executive committee bi APRC. kon yow jamono jii mënoon naa nekk leader APRC. waaw waaw waaye dama leen bàyyi ngir déglu wuñ nit ñi man maa bàyyil APRC suma bopp. te kenn bàyyee foo dem téye suma boppa di doxal sumay mbir léegi am na parti bu xew de UDP la doo ma dégg ci benn politique xala sàmba mu ma delloowaan ci politique xala sàmba te xala bi moo ut yëf yi dafa taxawoon on the ticket of UDP ñu dem gars yi jalkati kayit yi dem noonu lañ demee indépendant te su wi noonu doon nañ jàppale ji APR fin UDP waaw waaye man dama retire ci politique ñii politique suñ amee luñ la bugg a laaj te muy pexe muy déwal réew mi suñ ñëwee nañ leen jox ne retire but not tired mhm. noonu la demee mhm. ndongo baa ñu dama ko daan dégga soo déggee suñu papa yi suñu waxtaan ñu ne suñu jamono ñun ay ndongo baa ñu leen suñu waxoon ndongo baa ñu lu ñu bu mag a ngi nii man nii mooy yow te bëri pexe ah nekk def naa ko ci ndongo ndongo baa ñu la gën a bëri mhm. waaw dinañ koofaan dinañ paañ dinañ uti yoxos dinañ koofaan waaw koofaan koofaan boobu gerte gi ñu daan jëlee de gi dañ ko daan ebi fii uh-huh. su tuuroo ci géej gi uh-huh. da ngaa subu jël pañe uh-huh. ngay ko ngay ko as nii ci biir géej gi di ko def ci pañe bi du pay bu saako bi feesee nga dem jaay saako bi tout dala si fifty butul waaw moo tax ndongo Abdoulaye su ci nekk am na ci loo daan téye te doo sàcce noonu la fay fi tëddee ndongo lañ woon lu nekk def nañ ko ci Abdoulaye ndongo yu mag lañ waaw ñett place nga ñu mën a fàttali si biir Banjul fan la ndongo Banjul di daan dem ñun dinañ dem waafi Sophie Walter ah. waafi Morel Kurum ah. waafi Yuweesi ah. boon rooti waafi Njaago waafi Njaago na dañ fa daan dem nappi nañ fa nekk suba ba ngoon hmm. amuñ taay mi kenn hmm. ñu ngeen nappa rek suñ nappee ñu gas paax hmm. taal suñ mata lakka Masali Jaañ nag moo daaxoon lakka ak Badou Samba <laughs> ah dégg ngeen ko foofu rek laay am ak moom ah bu boobaa nag du ma dem si biir ah nga wax lu ama am solo ñuy dégg mag ñi di daan wax noonu nga bañ xanaa foofu nga tasee suma yumpaañi mu ngi nii de. Ah. <laughs> la waaw yéen a ngi gis ah, jaama neex rek yéen a ko gis ah, moom nag suñu papi bopp la waaye foog rek samta ñu dóor papa ji daal la. ah loolu nekk loo xam ne lu ama am solo la ñu ne ñàkk waxtaan a indi mm-hmm. waxtaanee rek di ngeen juboo mm-hmm. ba léegi rek comme nu ma leen ko waxee naka nga bëgg a gisee Bamba Auto Works fan nga bëgg a gis Bamba Auto Works indi neera future. ñi nga xam ne ñoo amee mbiri liggéey yi ñëwoon diisoo ñoom. di practical aspect of whatsoever they are doing ñun xëy na dinañ mun di yàq xam-xam bu ci xale yi comme li jiititi ayamee nii mm-hmm. moom laa laa ne am na ñeneen lañ koo jox yeeloon nañ ko waaye xëy nañ liñ ci am ci pexe buñ ñëwoon ci ñun dina gën a dox man mii sax maa ngi bugg a dem léegi sax def benn foundation moom Bamba Auto Works parce que foundation boobu laay xalaat pour def te dafa am ku ko advice te naa def lu leen guur lu leen fi ndax ñu fi jógee sax loolu nekk fi di dox nit ñi cee jëriñ waaw di ko pour liggéey liggéeyal sa réew depuis time yi colonial days ba ñu ngi liggéey waaw ñun dañ fekkee jamono Banjul yëpp waaw liggéey nañ colonial days liggéey nañ time yi président Jawara liggéey time yi Yaaya Jammeh sant yàlla bu mag a mag a mag a mag a mag waaw fàttewu ma nag di gërëm nag mooy jigéen ñi nga xam ne ñooy sumay soxna waaw ndee soo nekkee ci politique lu nekk di ko gis wàlli togga gi wàlli lu nekk ak yi ñoo dégga waaw posul na ñoo man ci loolu bee yàlla def man ma retire fu ma bopp bi ma bàyyee it woo si soog mm-hmm. dañ am meeting pour taataam suñ mag Pa Mamadi Sow mm-hmm. mu ne ma suma raka yoo saa doo compite ak kenn loolu da ngaa dem woon au cours bi ma bàyyee bañ ne Fatia pour tëj meeting bi man leen may leen dama fas kéene pour bàyyi fukki at nga nekk député nekk consulat bu la doyul dara du la doyee man daal fii laa emoon su ma gaa ne meeting bu du raj fa lañ nekk kerak ba wanokulog ci guddi sant yàlla la noonu laa téye alaaji si la ci loxo ñu jël alaaji si la jox ko mu nekk ay alaaji campagne ul dañu xam moom bém jot ka lii moom itam mu def fa liggéey boo rafet fukki at toog fa li xew ni ñëw fekk ko ci noonu la bàyyi ko loolu yëpp sant yàlla la makkan su lay Banjul not damal xaan pic nii ne nit ñi léegi nañ leen def élection ñu ne non non loo wax rek loolu la ñoo def mhm. Aïssatou Ndiaye Seydi sax daf ma ko daan wax mhm. Cheikh Omar loo wax loolu la ñoo def mu euh, Omar dafa daanu mhm. loolu am Eh, daanu dégloo artiste du daanu mm-hmm. artiste doo mu sa daanu boo fonkee sa liggéey ak sa métier doo mu sa daanu waaw daanu wuñ seen artiste du daanu yaa ngi biir <laughs> daanu ki ko def ah. mooy ki am boutique di jaay mm-hmm. waaye borom métier mm. doo jënd doo ooda ah. da ngaa taxaw rek ah. affaire yi ñëw xam-xam bi egg waaw ma ne ko loolu am na solo bu a baax fi nga xam ne ñu nekk si kër bi fii yaa moom ndax da nga ñëw di rent dëggu yàlla maa moom fii maa time bi maa nekk fii mhm. maa cokkeer yi rek ñoo fi nekk a golo yi mhm. fii li fi daan ñëw ci golo mhm. kenn xamul naka la toll golo yi gannaaw gi dañ demoon ba miin ni suñ dawee soo leen daayee ñu daw eeg bàyyi la ba nga joxe gannaaw ñu wàccaat ana golo ya ñu ngee ñëw benn benn benn benn lañ fi de ñëw waaye nag xëy na ci biir at mi yëpp benn yoon nga fay gis golo wala xëy na ñaari yoon waaw wax dëggu yàlla boobu fii kenn nekku fi ñun rek ñoo fi nekk yàlla jox ñu xam-xam ñu liggéey yoon yi nekk fii ma njaay urée ba ma njaay looj yoon yi adrode yi yëpp ñoo leen liggéey volontaire volontaire li amul dara lu ñu fay liñ mos a liggéey Serekunda fii ci ay yoon yëpp ñoo ko daan def te yàlla tax kenn santuñu ko ba Auto wax balaa fii fan la woon Banjul Banjul ban saay sa Banjul Independence Drive glosta opposite court house bi ci court house bi nekka nii mm. premises boobu leen ñun ñoo fa daan taxaw di gaare suñ moto yi di liggéey mm-hmm. waaye ñun dem ba nga xam ne bu house bi daan mit suñ dóoree marto sax gars yi indi police yi nañu doo leen dóor noonu lañ bàyyee ñun ñu ñëw fii yàlla nga tey xéewal gi ñu defal mm-hmm. ñu sante ko yàlla mm-hmm. sa mu kaani kaddu ko askan bi nga xam ne ñoo ñooy seetaan lan nga bëgg a tàggatoo nde li ma dëgëral ba mu mun li ma mun yëpp ci diggante ñaari réew di gërëm tam su may soxna ak su may waajur su may mag nag bàyyiwuñ ma Youssou Ndiaye si ñoom ci lu nekk la ma taxaw ba tey tey tey tey jii te ci lum dugga dina ma ko yëgal mënumaa wax ba jeexal te gërëm mooy gërëm ñi nga xam ne ñoom laa nekkal fii gëtanuñ ma joxuñ ma benn problème di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm defal ñu jàmm. Mm-hmm. ñu jékkal suñu li ñu fi yàlla indee ba yàlla def lu ko neex. Mm-hmm. Uh, ñaata at nga am wax ñu tuuti rek. am naa juróom benn fukki at ak juróom ñett. mooy ñaata si anglais. 68 na yalla yok jàmm yalla yok wërsëg bu bari bari di jajeufal ah, li rek lañu mag ñi munal ah, barki Dembo ndjay rek yeen yi nga xamne ne setan ah, sun last edition, bi dem nañ seti ki nga xamne moy Alhaji MC cham momit mu dalal kàddoom ci li nga xamne moy Gambia ñun ñolena inil mag ñi ñun ñolena inil kep ko xamne rek def na firu rafet di leen wax ne APS International ñoo support programme bi ak li nga xamne moy unique solutions Oncle Bamba keer bu ñu dem rek dañ dé laccé li nga xamne moy defante bi maanaam dama bëgg a xam naka ngay defantee man maa ngi nii nag avertissement baak bu ñëw wax defantee segment baak mm-hmm. ah, Lucky di Planet damaa duggal rek. Hmm. luy loolu ah, ah. nag jeex na yéen a ko ah, lok rek la moo nekk moom daal dafa seet li nga xam ne loolu la dugal rek. génnee moom la yéen a ko gis baag baa ngi hmm. noonu. kon nag jërë ngeen jëf bu baax a baax a baax mbokk yi di leen wax ne nag APS international ñoo support programme bi di jaajafal suma caméra crew bi ki nga xam ne mooy Ousmane Cissé ak ki nga xam ne mooy Lamine Cissé ak ki nga xam ne nag mooy Mohamed Kane di leen jaajëfal bu baax a baax. Ah, di jaajëfal ki nga xam ne nag moo ñëw ku def yeneen Vox Sports di Aida Kébé jaajëfal leen bu baax a baax a baax Gambian Talents Promotion ngeen ay seetaan lii leen leen inil suñ ne diw baax na ndax mbokk yaa ko wax épisode boobu mu ngeen ñëw si biir Tambambalu jërëjëf. am jërëjëf Fatou Fatou Samba si sa ah, interview bu rafet boobu fii si Tambambalu show Gambian Talent Promotion comme ni leen ko indilee ah, suñ ne diw baax na mbokk yaa ko wax ba tey nag di leen fàttaliku ñu ngi fii si Bamba Auto Works. Ah, soo ñu ngi fi am koo xamante ne ni ah, ñu bugg a mu wax ñu tuuti si Bamba oto Works asalaamaaleykum bisimilah mina seytaane rajim sant naa yàlla di gërëm yonent bi sallallahu alayhi li wax ne alhamdulilah li ma laaj kontaan naa si trop man nag mënu ma wax si rajo wax ma la parce bu bu set Babacar omo pour ñu programme la waaye nag ki ngeen di laaj nii lépp lu mu defoon doomu aadama suñ ko ko fayoon tey du mun a toog fii sax waaw man maay force apprenti bu njëkk ci moom man maay force apprenti bu njëkk ci moom boobu ñu ngi liggéey jiyaat bi ànd ak léegi dégg na ñeent fukki at wala mu waaye ba tey teraanga ak jàmm suma jabar man moo ma ko takkal si war yëpp moo ko def suma jabar man moo ma ko takkal li si war yëpp moo ko def dama yàlla may ko fan may ko wér-gu-yaram moom man yàlla may ma ma defal ko man li ma bugg ci moom ma yàlla may ma defal ko barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ah, ñu di ko jaajëfal ah, ñu ngi gis tamit ay xale ay xale yu ndaw ñu bëggoon leen a laajte ñu wax ñu seen kàddu si Bamba Auto Workshop na booy na nga def. ah yow apprenti nga fi. Ah. loo ñu mën a wax si garage bi. garage bi loo am pour wax sa boos. ñu ngi mu ngi try. Oh. yow yaa ngi koy lu bari. waaw oh. yow noo tudda. Maafu. Maafu. Seyni. Maafu oh. ah, gis tamit benn xale bu tuuti. <laughs> ngeen ndaw ah gis ay xale yu ndaw xale yoo xamante ne nii ah, den tuuti torop. ah booy na nga def. yow noo tudda. ah. Abuuba. yow apprenti nga. apprenti nga lan nga jàngagum fii. lo am pour wax sa boss da ya ngi jere jaajeufal sa boss ah jërëjëf ñoo ko déggandoor ah, kookoo ngay ah, bossam a ah, ñu fi gis tamit keneen a apprentice bari neen fi ni ñom ñep way dafa mini ni gars wuñ caméra a boy na nga def ah yow lo am pour wax si workshop bi ñu pour jangani ji suma mi xere da nga ñu yow lo am pour wax boss bola sojira dan konyana dan kasunda besu ok ah, jërëjëf ah, daf leen a trainal pour seen ëllëg ah, loolu mu nekk loo xamante ni lu am ni tamit si si workshop bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. na nga def. sant yàlla alhamdulilah. am noo workshop bi. workshop bi di mhm. julli cheikh nak moy sun kilifa fi yatal nañu fi waaw deug deug yatal nañu fi yoro nañu yoro bu rafet moy sun patron moy sun kilifa fi am yow dipi kañ nga door fii yàgg na at na ko ñata at ku na legi tatiyes years okay years ok am mbokk yéen a ko déggandoor kooku nekk na fi ah, moo daan thirty years ah, moo daan years ah, nekk na ko fi mu nekk loo xamante ne lu am solo la ah, Bamba auto workshop nag ah, daf fi nekk di ah, di jàngal xale yi di leen trainal waaw di leen jàngal métier am yan jafe-jafe ngeen dee jànkuwante xale yi. xanaa seen dëng xale moom xam nga ku ko yore il faut nga jubbanti ko yar ko waaw moom doo am xale mu amul problème surtout jamono yi ñu toll nii ñu ngi ñu ngi laay fag gis nga ni fi xawee sakkan bu école tëjee ñoom ñëpp fi la ñu nekk ñenn ñi bu école ubbee ñu dellu ñenn ñi toog ñu jàng métier am lan lan nga ñu mën a wax si Bamba Auto Works. Bamba garage bu yàgg la garage bu yàgg waaw. depuis kañ la door. Euh, yàgg na ci sixty garage la boo xam ne ci sixty la commencé Banjul la dooree woon. Ah, ok jërëjëf ah, ñi koy jaajëfal ah, di leen jaajëfal yéen tamit si seen sétane bu rafet bi ngeen na sétane Gambian Talent Promotion seen Tambambalu show la comme Fatou Samba num leen ko indilee tay ñu ñëw fii nii kóotu si Bamba walk auto workshop di leen jaajëfal ba benen yoon jërë ngeen jëf. Y'all want me to do a song for your kids? is. All right, all right, let's go. I listen to Gambian Talent Radio Show. School is over.